إنني أقف اليوم بين صفوة قال عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم هم أهل الله وخاصته فله من شرف عظيم ومنقبة, ومنقبة كبيرة يتشرف بها حفاظ كتاب الله أيها الأخوة الأكارم لا يسعني في هذه الدقائق القليلة إلا أن أشكركم على ما تولون لكتاب الله وخدمته وتشجيع طلبة العلم وحفاظ بكتاب الله عناية من عناية فشكرا فشكر, فشكر الله سعيكم وبارك الله في جهودكم أقف اليوم في هذا الحفل مسابقة القرآن الكريم وهي تتزامن مع تكريم حفظة كتاب الله في بلد المملكة العربية السعودية في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله اليوم هنا هنا تكريم لحفظة الله حفظة كتاب الله وهناك في بلدي أيضا يكرمونهم من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد كما تعلمون أصحاب السعادة والفضيلة أن المملكة أخذت على عاتقها العناية بكتاب الله الكريم حيث أنشأت مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الكريم في المدينة المنورة وهو يعتبر أكبر مطبعة في العالم لطبعة لطباعة المصحف وهو أحد المعالم التي تقدمها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم وقد أنشئ وقد افتتح هذا هذه المطبعة في عام 1985 ميلادية وتبلغ الطاقة الإنتاجية 22 مليون نسخة سنوية موزعة بين مصحف كامل وأجزاء مترجمة وتسجيلات وكتب لعلوم القرآن وغيرها ومجمل ما تم إنتاجه إلى 2000 و... إلى 2019 300 مليون نسخة ويجري المجمع دراسات وأبحاثا مستمرة لخدمة كتاب الله والسنة النبوية ويضم أحدث ما وصلت إليه من التقنيات في طباعة في الطباعة في العالم كما اعتنت المملكة بخدمة الحرمين الشريفين من اهتمام وتوسعة وعناية بضيوف الرحمن والمشاريع الجبارة التي تخدم الحجاج والمعتمرين و خادم الحرمين الشريفين عناية خاصة بالحجاج والمعتمرين فكل عام يفد للمملكة العربية ملايين الحجاج والمعتمرين وتقوم المملكة باستضافة مجموعة منهم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ووزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العالم الإسلامي هو العالم الإسلامي أهمية كبيرة للعالم الإسلامي أهمية كبيرة لدى المملكة العربية السعودية في النهاية فالأمة الإسلامية كجسد واحد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هكذا المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى هكذا المؤمنون كجسد واحد أيها الأخوة الكرام تشرفت اليوم بالمشاركة في هذا الحفل الكريم لتكريم حفظ القرآن الكريم والتي قال وقد قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا هو فكان أو فكان الحفظ الدرجة الأولى لحفظ الذكر فكانوا حفظة كتاب الله هم الدرجة الأولى حفظ الذكر وحفظ القرآن الكريم من التزوير فقد أي جزء من أجزائها والأخير في النهاية أو أخيرا لا يسعني إلا تقديم الشكر للقائمين على هذه المسابقة ولحكومة جمهورية السنغال الذين كنا لهم كثيرا من المحبة والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فضيلة الشيوخ الأجلاء والوفد الممثل لطرق الصوفية معالي وزير النفط والوفد المرافق saadatu sufra wa silki diplomasi almuctamadin lada albilad samaxata raisi alitihad alwatani li jamiyat almadaris alquraniya fi sénégal maa lilmudir ilam lisharikati sinico cheikh alxaaji abdoulahi dia wa ixwatihi almutaawini sayid moustapha dia wa sayid alxaaji moustapha ndiaye سيادة رؤساء الجمعيات الإسلامية والمنظمات الخيرية فضيلة الأئمة والدعاة أيها الحضور الكريم والجمع الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أيها الإخوة بترحيب الحار لضيوفنا الأعزاء والوفود المرافقة أعداء السلك الدبلوماسي المحترمين الذين شاركونا هذه الحفلة القرآنية العطرة وهذه الجلسة الرمضانية المباركة التي تميزت بهذه التلاوات الرائعة وهذا التنوع الإفريقي الممتاز نشكر سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين دكتور سعد عبد الله النفيعي ونرحب ونشكر جميع أعداء السفراء المعتمدين لدى البلاد ونقدم لهم تحيات وتمنيات المدير العام الشيخ الحاج عبد الله جاه والسيد مصطفى أحمد ون رئيس الاتحاد الوطني ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جزاكم الله خيرا في بلدكم الثاني wa bayna ahlikum wa zawikum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ngeen baal ma rekk ma indi fi ñaari kàddu yu gàtt walla ñetti kàddu yu aju ci liggéey bi li ci njëkk mooy son excellence monsieur l'ambassadeur bu Arabie saoudite dafa am ay kàddu yu am solo yu mu indil Cheikh Alhaaji Abdoulaye Dia ak mbooloom jullit yi nga xam ne ñi ngi ci gannaawam ak ci kanamam di ko jàppale ci turam ak ci turu royaume bu Arabie Saoudite waaye mbooleem corps diplomatique bi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñoo toog nii xaj na bu ci xajee danañ leen présenté ñoom ñëpp wax seen tur ak ambassade yi nga xam ne nii moom lañ jógee ñaareel bi mooy kàddu fédération nationale bi nga xam ne Cheikh Moustapha Ahmadou Wane moom moo waroon taxaw fii joxe kàddu gi waaye mu dénkuñu ko ndax liggéey bi gën a gaaw ñu joxe waale kàddoom danañ ci ñëw El Hadji Abdoulaye Dia ambassadeur bi mi ngi lay nuyu nee na yëg na ne dangaa taxaw di liggéeyal lislaam waaye am na ay jàmbaar yu nekk ci sa sa doomu sëriñ Serigne Moustapha Ndiaye mii nee na gëstu na ba xam ne mi ngi taxaw sa ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacké xaadim awa ba waaye Serigne Mountakha wax na ma barki démb ba ma demee ci saalam làmmiñam sama nopp mu ne ma Omar dee leen wax jàmbaar yi sëriñ tuubaa kon ma bañ a tooñ Serigne taxaa ndax moo wax làmmiñam sama nopp moom mi ngi toog boole ngi toog ñëpp ngi toog mu ne ma Omar dee leen ma ko wayalee jàmbaar yi Serigne Touba. waaye jàmbaari alquran ci sa wet ci safir ne na tey alaalamul islaami yi muy monde islamique bi lii grand prix Sénégal di def tey nga yëg ko ak nga bañ koo yëg yëg ci internet bi ak xarale yi ak elam fi mu toll tey ak jamono fi mu toll adduna bi yëpp ñoom ambassade yi nekk fii ñu ngi leen di ndokkeel ci nekk gi nekk ci réew mi ndax alxuraan ji nga xam ne mi ngi fiy jolli waaye nag mu am fi ndëgër laay loo xam ne partout ci monde bi foo dem duutuñu fàtte alxuraan ndax taxawaayu grand prix Sénico nee na loolu lu rafet la nee na yàlla wax na dëgg ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ne inna nahnu na zikra wa inna lahu la xaafizuun nee na liggéey bu selli bii grand prix Sénico di liggéey dafay dëggal kàddu yàlla maanaam ndax saayal kàddu noonu yi nga xam ne neewoon nañ alxuraan du sori kon juróom-ñaar téeméeri kàng le grand prix koo génne ci édition bi ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñu seggaat ci juróom fukk juróom fukk yooyu nag ñoom lay defal bërki démb euh, final ambassadeur bi nee na loolu bu soobee yàlla bu saxee alxuraan buñ ko lokkoon moom incha allah xale yi danañ mën a jël euh, bindaat ko. am na xadis bu am solo bu mu wax ne masalul muminina fii taraahumihim wa tawaadudihim nee na lii mu gis tey chef religieux yëpp toog. association islamique yi sufara yi boroom xam-xam yi kàngam yi ñëpp toog ambassadeurs yi ñëw taxaw ne li yonent bi waxoon ne jullit ak mbokk jullitam solidarité bi nekk ci yaram ni ñu war a mel noonu lañu war a mel moo tax Arabie saoudite ci kaamil yi muy mayee mu jóge ci Makka di jóg Médine dinañ koy yokk visa yi nga xam ne duyuful euh, al malik Salman bin Abdul Aziz xafisahu waraahu Sénégal dana gën a yokk umra yi nga xam ne wasaara suunu islamiya da koy maye ambassadeur bi nee lii tey am na ci mbégte loo xam ne dina yokk maanaam jéego yooyu. xam naa bari na te njugo mi ngi may taxaw kon ma ñëw ci cadre fédération bi bu ngeen ma ko mayee ngeen baal ma Serigne Ablaye cadre fédération bi du dara lu dul cadre sant ak cadre di ñaan ak cadre di seede cadre seede yi mooy njëkk. mooy dañu wax ne Cheikh wax ne Seydina Muhammad law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu tabqa albariyatu fi zalmai allah Seydi Hadji nee na yonent bi jamono bi nga xam ne la ko yàlla yónnee su feeñutoon adduna bi dina alku dina toskore waaye Moustapha Wane nee na bi nga tegee loxo fédération bi teg ko loxo doomu daara yi li commencé fii ci dakaar ba Saaria bu Grand Prix ko ñëwutoon daara yi danañ nërmeelu kon nag sëriñ Moustapha Ahmadou Wane nee na fu daara mën a nekk ndax Ablaye bëggul ku koy takk Ablaye bëggul ku koy gërëm waaye nag il faut ñu ñaanal ko yàlla wa amma ma yanfa'u naas fa yamkusu fil ard Ablaye yàlla nga dund xarafi lakum malakum waaye yàlla nga fi sax sëñ Moustapha Ndiaye yàlla fi sax sëriñ Bassirou Khadim Mbacke ak bokk yi lay jàppale yépp bi ci tege mooy da nga ñoo fekkoon sëñ Ablaye ñun doomu daara yi ci ay situation yoo xam ne situation yu métti la yu jafe la waaye yow sa taxawaay yow tax nga ba ku ne tey xemmem na jël doomam tey dugal ko ca daara nanga ma baal dund bi nga xam ne moom ngay joxe nanga ma baal daara yi nga xam ne moom ngay joyanti nanga ma baal waaye li ci gën a garaaw at yi paase bu ñu daan dem concours bitim réew dañuy naar yi dañuy ree Sénégal waaye tey fu concours amee Malaisie wala Dubaï wala Arabie Saoudite fa nga xam ne fa la jógee nu fex yi nee na ñëpp ñooy jël seen prime di féliciter président de la république nee na loolu bu amee dara lu muy tegtale grand prix Sénico moo rundi wala waa daara yi grand prix Sénico moo taxaw waa daara yi grand prix Sénico moo ñu may formation yoo xam ne am na qualité bu sell bu wér boo xam ne fu ñu jàng ci àdduna bi ñu xam ne kàngam jàng na bokk yi lii ma war a wax lépp te Moustapha wax ma ko xaju ci xanaa corps diplomatique bi fi teew bu ñu leen mënoon tudd bu gaaw seeni i tur ndax seen àq la ngeen may ma ma tudd leen ndax it waxtu wi moo ni mel docteur Salis Abdullah ambassade bu Nigéria docteur Assadi université Jamiatul Moustapha al Alamiya madame Maïga Abiba Burkina Faso Idriss malien al euh, bu Mali Mouhamad Khalifa Al Jalil ambassadeur bu Irak Abdul Jabbar Saham consul bu Irak Seydi Makhtar Bachiri ambassade bu Algérie Imad Derwish ambassadeur bu Palestine mi ngi ànd ak consul bi. Munzir Hassis Guinée-Bissau Chérif Al Hassan Haydara Arabie Saoudite moo taxawoon di wax Saad Abdullah An-Nufay wami yebal nañ fi sunu xarit docteur Fathi muy ku baax ku jàppale sénégalais yi ak daara yi yal na yàlla fay ko e, Conakry ambassadeur bi ñëw na ci boppam muy Manju Jobaate moo teewal Conakry yi safarabu Bene Alassane Sarr datu Zeynal Isra Zahri ambassadeur bu Mali Malaisie ambassadeur bu Burkina bu Guinée Bissau moom it fa tabarakallahu teew na ci ak yeneen corps diplomatique yoo xam ne xaj na ñi ngi ci yoon bu nu ñëwee ñu àggale leen sëriñ Moustapha Ahmadou Wan nag jéggal ma li nga ma waxoon ma santal la ko ab Ablaye jàmbaar ji taxawul dama bañ a yàq dara ci commune ci cornogramme am waaye benn li nga wax ne dénk nga sa bopp Ablaye Dia yow sëñ Moustapha yaa ma ko wax dénk nga ko daara Sénégal yi ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ànd nañ ci biir ànd nañ ci biti hasa bi billahi tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh le temps de parole accordé kon nag ñoo ko déggandoo le temps de parole accordé est épuisé ku ko déggati rek wàcceel sa kàddu bul xaar ñu ne laal macha allah jër jërëgéen jëf jërëjëf euh, El Hadji Oumar Seck jërëjëf moo euh, indi woon noonu ay kàddoom euh, su ko defee dañuy dellu nag barkeeluwaat ci alquranul karim ji àndaat ko ak sunu ndongo yi ñu woo xaadim sëy xaadim sëy bismillah bu ko defee soxna Maguette Sarr moom itam na waaj di leen wax ni nag jury bi yegg si nañu kon de xanaa résultat yaa ngi xeeñ incha allah waaw yàggatul dara ñu xam final yi ñu doon dund fan yi ci institut islamique ana lan la génnee ndax docteur Mahmoud Hassan Bousso yegsi na mook équipe ñu déglu Khadim sëy kenn ci ndongo yi qualifié final national la bokk Sénégal. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العلي العظيم takbir macha allah waaw waaw ci grand prix bu Sénico woor nekk ci fu féex di déglu alxuraan yu neex yàlla yàlla boole dimbali bañ yeggal ak jàmm incha allah kon su ko defee dañuy jàll ci beneen ndongo rek euh, laata ñuy ñëw ci kàddu gi nga xam ni mooy kàddu parrain bi te mooy bis bi fàttali nañu ko ñu ko tuddee sang bi Cheikh Salihu Mbacke Xaadimu Rasul su ko defee suñu dégloo beneen ndongo rek incha allah ñu jàll kon ci jile kaddu euh, soxna Maguette Sarr moom la ñuy woow mu ñëw jàngal ñu alxuraanul karim su ko defee Mouhamad Niang mu waaj moom su jàngee ba pare incha allah ñu jàll ci kaddu sang bi nga xam ne mooy wax ci turu parrain bi Cheikh Salih Mbacké Maguette Sarr bismillah ñu santaat bu baax. amicale des femmes de Sénico ca ca bopp ba soxna Fadima nekk ca ñoo solal xale yi noonu jàppale ko bi yoon Grand Prix bu Sénico bismillah soxna Maguette الله إن الله لطيف خبير يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن تتقوا واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك أنكر الأصوات macha allah soxna màgget saar moom it bokk ci candidat yi nga xam ni dañoo qualifié woon euh, finale nationale jongante na ba pare incha allah résultat yi ci kanam tuuti rek lay génn su ko defee euh, Mouhamad Niang moom it kenn la ci candidat yi. ñu woo ko mu ñëw moom itam barkeelu su yëggalee rek El Hadji Jili Ñang dana ñëw xamale ñu ak sang yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ci pàcc bu njëkk solo lu paree nag ñu génne kàddu ki nga xam ne moom lañ tudde bis bi te moo di Cheikh Salih Mbacke bismillah Muhammad أعوذ بالله من تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا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 فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن إنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صورا عُمًى وَعُمْيَانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا واجعلنا للمتقين إماماً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 yaa ngi naan xanaa du kii war a jël pee loolu nag ci kanam lay feeñ incha allah waaye ñoom ñëpp ñee toog ñëpp ay jàmbaar lañu te Serigne Talla Diop wax na ko léegi. kon su ko defee eh, El Hadji Djili Ñang bisimilah Serigne Djili su ko defee nga xamale ñu ak eh, sang yi nga xam ne ñoo fi yegg si su ko defee nag ñu daal di jàll ci kàddu yi nga xam ne mooy kàddu parrain bis bi te mooy Cheikh Salih Mbacke Khadim Rasoul Hadji Djili ok su ko defee kon euh, xam naa ñu wutu ko fekk kenn rek mooy liñ naroon def bu daaneelee kàddoom te mooy tànn gone ki nga xam ne moo ci gën a néew ay at ci concours bi bégale ko ki nga xam ni moom moo di parrain bi Cheikh Salih Mbacké ndax ku ne xam na fa mu tegoon tout tànk kon ba euh, Alioune Badara Diagne ba Badara bismillah bismillah kay jàngal ñu alquranul karim gis ngeen ko mbokk yi kii bi muy qualifié final di bokk ci concours bi sept ans la am juróom-ñaari at 2022 bi muy qualifié final sept ans la am kon fi ne nii neuf ans yàlla na ko yàlla sàmm waa ñu defaral ko micro bi te teewlu ko waaw pour wax rek ni Sénégal moom ak ay merveillam Sénégal ak alxuraanam waaye Sénégal ak sunu doom yi nga xam ni macha allah bismillah ñu teewlu ko maa ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi xel njàng mi bismillah alin ba أعوذ دم mi ngi noonu c'est le plus jeune candidat am juróom-ñaari at gis ngeen ko bërki démb dama dem di ndogu ci ñoom comme li ma koy barkeeloo at mu jot bi ñu paree am ñu ñëw ci man moom mi bokk na ci mu wax ñaari kàddu ma jàpp ko mu intéressé ma lool ma jàpp ni intéressé na jullit mu ni ma tonton sëñ Ablaye Dia bu ko yàlla fayee ndax dina ko àttan ma ne ko luy loolu mu ni ma ah li muy def lépp xoole fi mu ñu indi ci hôtel bii nga xam ne dafa rafet ñu bàyyi ñu ñuy foog kenn dérangé wuñu saa yi ñuy ndogu dañuy lekk di lekk ba bàyyi ko fa lekk gu neex kenn duñu solal waa lii bu ko yàlla fayee ndax dina ko attan man ko ah mu teg ca leneen loo xam ni dama koy dencal sëñ Ablaye Dia yàlla na ko yàlla sàmm ma xool ko ree ko ni ko yow yow daal da nga maa bëgg a jombal waaye nag dama lay comprendre ndax da sant jaañ mun ma des na de wallahi azim xale bay wax ma ne ko lu des mu ni ma sëñtaala Talla dafa sérieux wallaahi moom ma ko wax ma ne ko yow sëñ Talla foo ko xamee mën ma xaw ko de waaye xam naa ne lu ko sëñ Ablaye wax loolu dong lay def du def leneen xale bii moom ma wax waaw kon pour wax ni daara yi kenn dugalu ci xale yi pour noggatu leen ñii xalaat ne daara punition xale la nañ ko bàyyi daara dafa jël xale pour may ko épanouissement dafa jël xale pour ubbi xelam dafa jël xale pour def ci moom xam-xam dafa jël xale pour def ko ku yéeme koo xam ni waaye lépp dafay tënku ci diine te preuve yaa ngi nii sept ans nga mokkal alquran qualifié final national fan la am yàlla ñu ko yàlla sàmbal waaye Cheikh Ablaye yàlla ñu la yàlla fayal su ko defee ngeen jéggal ñu bu baax a baax jàpp naan lii rek intéressé na jullit ñi ngir ñu xam ko Euh, ànd ak xaaji jili ñang sëriñ jili bismillah xamale ñu ak sang yi nga xam ne ñoom ñoo teew ci pàcc gu njëkk ci tënk rek incha allah su ko defee ñu jàll ci kàddu gi nga xam ni mooy kàddu parrain bi yàlla bu baax sant ñi nga xam ni seen liggéey moo tax lii mën a am waaye ñi leen doon itam mujjewunu puso bi mu réer moo tax lii di mën a am kon sëñ Abo Mouhamed sëñ Abo soxna Maymunatul Kubra bintu Cheikhul Khadim sëñ Abo sëñ Mouhamadou Mamoun bintu Cheikh Seydil Mukhtar maam Cheikh borom Daaru Salaam sëñ Abo sa taalibi moo waral lii sëñ Abo jagle gi sëñ Tuubaa am ci alxuraan moo waral lii sëñ Abo lislaam gi yëpp wuy si nan la say mbokk bopp jiitu ci rawatina waa kër Cheikh Mohamad Fadal digganteem ak maam Cheikh Anta xoola sëñ Modou Mamoun ma nga nee toog sëñ Alaaji Tàkko ma nga toog balaa may ñëw ci ñi la si ñëpp ci say mbokk ma ñëw ci say mbokk yii nga xam ni ñooy Sëriñ Tubaa sëñ Tubaa mooy Seydi Alaaji Malick sa mbokk yii nga xam ne ñooy Sidi Moxtaar Kuntiyu te kooku itam mooy sëriñ bi sa mbokk yi nga xam ni mooy sëñ Canaba te sëñ Thiénaba mooy sëñ Touba ndax sëñ Touba loolu la doon dund sëñ Sidi Ahmed si mu Alaaji Abdu jërëjëf sëñ Ahmada si jërëjëf mu Seydi Jamil sëñ Habib sunu soppe boobu jërëjëf mu Cheikh Mohamadul Mansour borom daara ji sëñ Babacar Cissé mu soxna umu xayri si moom saa su nekk mooy gunge soxna Fatima bi nga xam ni waajuram damay wax saa su nekk l'absent le plus présent di concours international ko mooy sëñ Pape Malick Sy bërki dem wax naa ko ci léegi moom sëñ Modou Mahfouz mais ak sëñ Abo bu ñu teewul sax nit ñi bu ñu xoolee saal bi gis leen ci jërëjëf waa Cenaba sëñ Mouhamed Alioune Guèye moo teewal xalifa sëñ Assane Seck kay sant bu baax oustaz sëñ Abdou Latif Kunta moo teewal xalifa bi sëñ Sidi Mokhtar Kunta Kunta mu ànd ak sëñ Yaxya Kunta ak maam bu Kanté Cerno Bachir Tall ak rakkam di nekk fii ak doomam di nekk fii di Cerno Madani yabal nanu imaam Cerno Seydou Nourou mu ñëw ànd ak doomam ak délégation bu mag mu ngi leen di sant bu baax association islamique yeeg ak kuréel yu baree bare teew nañ ci daan ci ñëw waaye sëñ max sëñ Mahmoudan moom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad mi ngi nii toog sëñ Amsatu moom moo jiite délégation sëñ Saliou bi waaw ah, moom sëñ Saliou mooy léppam nee na sëñ jur rek la am ci man waaye sëñ Saliou mooy sama sëriñ moo ma yar lu nekk ci man moo ko ci def moo tax mu ni sëñ Cheikh loolu du ko bàyyee kenn mu ànd ak délégation bu mag daan ci ñëw sëñ njabootu Cheikh Mouhamad lamin Baara dañ teew teewaay bu ràññiku sëñ Bass Xaadim Awa baa ngi nii jàkkaarloog man moom mooy yow yow yaay moom ba démb disposition liggéey bii bi ñu koy def mi ngi teew te bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi dana nekk ak man fii yenn saay yi bu ay heures du matin wala 4 heures sëñ bas lii sëñ Omar Seck wax maa ngi toog sëñ Mountakha daf ko ni maa ko tuddee jàmbaaru sëñ Touba loolu la wax ni maa ko tudde jàmbaaru sëñ Tuubaa di leen ko ko woowee jàmbaaru sëñ Tuubaa waaye sëñ Cheikh Aziz bu teewee sëñ Cheikh Baaralaat moo nu ko léemul ni mu ko defalee woon daaw sëñ Sidi vice président maire wala ad maire premier adjoint maire ba ca ma maam Cheikh. am na sax ci délégation association islamique yi AIS waaye délégation njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara mënees ko mënees ko see ñàkk boole. sëñ Muntaxa mi ma tudd léegi yebal doomu boppam maam Thierno sëñ Koso sëñ Isaaxa di rakkam moom ni dëgg la sëñ bi yeble na waaye taxawaayu sëñ Ablaay ak fi liggéey bi toll ak ni ko liggéey bi ñore mooy mu jël ki mu tuddee sañ Basiiru boole ko ak sëñ Fallou mu sëñ Abdou Latif sëñ Koso ni mu ko baaxoo defee saa su fi ñëw ànd ak sëñ Muntaxa Bakka la moom it mu gunge ngir fonk gi ñu fonk liggéey bi sëñ Modou Mahfous tudd naa ko léegi moom mooy liggéey bi liggéey bi mooy moom Daaru Salaam maam Cheikh sax moo ma doon jege ndax Daaru Salaam ni ñu teewe ci liggéey bi bu ñu leen doon lim fii ba tisbaar mën naa am du jeex ndax soxna maa Anta sa jigéen ju baax jee délégation bi mu fi indi rek kenn xamul na mu toll kenn desul Daaru Salaam ñi ànd ak sëñ sëñ Abo ñi ànd ak sëñ Abo doomu boppam yi rakkam yi xalifa euh, imaamu gaawaan yi di xalifa gaawaan sëñ Mbàkke Anta dend ak sëñ Amidun mu sëñ Mamoor Sikaab ñu ànd ak seeni doom seeni rakk sëñ Seexuna moom sëñ Amidun njabootu sëñ Amidun gi imaamu daaru salaam Cheikh Abdou rakkam mi sëñ am di tudde sëñ Aboul Bara Mouhamed mi jiite délégation xalifa sëñab Abdou Xafoor a nga ne feggoog sëñ Abo ak gaawaan bu ma ko doon lim ni ko ni ma ko waxee léegi du jeex bare nañu teew lool sëñ Sidi mu sëñ Amidou def délégation mooy bu am solo ñu ñëw waaye bu ma ñëwaatee nag ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee bés bi bés bi delluwaat rek ci sëñ Touba tudde bi nag sëñ tuddewu ko sëñ Saliou ndax lii xalifa sëñ saaliwu tey jii di sëñ Cheikh di mbokkam déedéet nee na ma tuddewuma ko sëñ Saliou itam li ma yaakaar sëñ Touba donte waroon na ko jar waaye tey jii boo doon seet ci Sénégal sëñ Saliou li mu defal alxuraan balaa ngay gis ku ni mel di nga wër ba sonn li mokkal ci moom alxuraan balaa ngay gis ku ni mel di wër ba sonn li bind ci moom kaamilu alxuraan ay junne ay junne yu mokkal ba bi at mi mu fiy jógee xel koom képp fukki junneeg ñaar recensé nañ leen fa lu bokkul ak yeneen daara yi nga xam ni fanweeri daara la fi bàyyi xel kom rek mooy fukki daara ak juróom kon kooku sëñ Ablaye tuddewu ko ngir murit la tuddewu ko ngir xalifaam mbokkam la waaye da ko tudde xam ne sëñ Saliou yaroon na bisu alxuraan yayoo a ko niñ daan tànne parrain yu jëkk yi kon loolu lu mat a xam la sëñ am sa too ngi ñëw lu ci mat a dolli incha allah dana ko dolli waaye sëñ Saliou sëtam yii ñoom sëñ Abo sëñ Jili soxna Assou ak ñu nu àndal waa kër sëñ Moustapha moom sëñ Saliou ñoom ñëpp a ngi fi. bu ak ànd mbooloo mu bari ci wi moo ko mayewul jëwriñ ñoom ñi nga xam ne waa Xelkom kii seen jëwriñ di sëñ Abdou Ndiaye ndongoy Xelkom yi xajuñu fi waaye nag jàmbaaram ja waajuru sëñ Saliou ndigal cuuna ngi nii cantakoon yi xajuñu fi ndax fonk bés bi tuddi gi nga tuddee sëñ Saliou des des na lu bëree ah, bëri. le temps de parole accordé est épuisé. le temps de parole accordé est ji lii incha allah bu ñu ko temps bi mayaatee rek da nga dellu siwaat ndax euh, li wolof naan rek njaabum gileem xajul ci waañ yaakaar naa li nga ci xam lépp moom macha allah yal na yàlla fay kon su ko defee dañuy jàll teewlu kàddu parrain bi nga xam ni moo di. Cheikh Salih bu Mbàkke ñu teewlu ci Cheikh Amsatu bismillah sang kon ñu teewlu kàddu googu nga xam ni moo jëm ci tudde gi ñu tuddee bis bi Serigne Salih bu Mbàkke Xaadimu Rasuul sëñ Saliou wane njaboot sëñ Saliou nag yaakaar naa ki ci jiitu mooy sëñ Sidi Abdou Lahad mooy taawam mooy jëwriñam sëñ Cheikh Saliou taawu sëñ Abdou Lahad la di jëwriñam loolu la yàlla doon kon nag sëñ Abdoulaye Dieng boo tuddee bis bi sëriñ Saliou dana ci amee sant dana ci amee gërëm dana ci amee ñaan def nga loo xam ne neex na jullit yëpp waaye nag tàkk yëpp maa ngi nuyu nag bokk yi fi teew yëpp sama kàddu yoo dëkk tox ci sëñ Abo tegal ko ci kaw bokk yëpp ma ko waxee léegi ñu ngi lay sant di la gërëm ci jëf yu yi nga def defal ko sa bopp waaye defal ko julli yëpp defal ko taalibi yëpp doon tuddee bis bi nag dafa am ay màndarga yu wér yoo xam ni mooy seen fan koy fekk ci téere bi yàlla bi ak ci taalibe yi ak ci tool yi ndax tëggee fii rek la dem ñett yooyu ndax taalibe yi seen tubaay yi jàngal fan di ko jàngale wala kenn ko di liggéey di jàmm yàlla te lu mu liggéey jox ko muy gëm yàlla ragal ko muy jullit biir du dëppook sunna du juyoon mukk di yi boo xam ne da cee boole ak taalibi bu dëpp di murit saadix fi nekk ba jóge fi lu mu lëggee ay kilifaam ak di jàpp di jàmm yàlla jëmm yu mel noonu nag suñ ko day baax ñu nafar ay jëfam ak i jëfam kon fàttali ko ndaw ñi waaye fàttali ko mag ñi fi jógee yëpp dañ koy fàttali waaye nag fàttalee dafa baax te ku jëlatul bind war a nafar ku jëlatul bind rek da ngaa war a nafar sëñ Saliou dafa xamoon adduna lool ndax kuy defar ku ne lu yàq da ko war a xam dafa am loo xam ne dafa concerné Abdoulaye moo tax ma koy wax lu yàq réew mi dafa waxoon ni Senghor moo yàq réew mi ni mu ko yàqee nag mooy ñaar def force gi force nit ñi ñu jàngi tubaab ak laaj gi ñu laaj indépendance ndax nee na xanaa léegi la sax waaye ci gannaaw ku ma saa am certificat rek wala wala wala wala brevet doo nangoo dem ca tool ya doo nangoo jàng métier nga seet su bàyyi woon nit ñi nekk ci leneen ci la nguuram di dàq waaye bi mu forcé nit ñëpp ñu jàng ci wàll rek sonal na ko ko te amuñ ci benn najaax ndax années quatre-vingt da nga naan gis ñett ñu am master ñetti maîtrise ñu boole leen benn pour wala ñu boole leen benn benn car wala ñu boole leen benn pharmacie te du leen jëriñ dara nga gis ku mel ni sëñ Abdoulaye mi nga xam ne jànguloon doomi daara la taxawal loo xam ni ñooñee jàng loolee ba am ba seenum jàng kawe da jël ñu bari di leen fay kon xam na ni daara dara dox te boo gisee ñoom ñooñu liñ defar ci nit defar ko ci réew bi ña fa nekkoon jàngi tubaab ba tey defuñu ko Senghor a fi nekkoon sëñ Fall la jamonoon waaye sëñ Fall aw turam ba tey yéen a ngi koy dégg allah ji aw turam yéen dégg saxal islam aw turam yéen dégg te Senghor kenn déggatu loolu rek doy na na laaj gi indépendance gi wax nag nee na su ko senegal dafa meloon ne xaw a sawar ci loxo yi France su bàyyi woon dañuy defar réew ba mel ne France ñu doog leen jox waaye laaj bi mu laaj nag yàq na lu bëree bëri. li def nii muy jàng ak jàngale daf cee sonn ci loo ba koy def metti na. waaye teewlu muñ natt yi ak coono yi nekk ndax day ndigalu sëñ Tuubaa lu ko digaloon nee na demoon na ba tàyyi bëgg cee génn ndax ñàkk cee am résultat loolu moom ma ko nettali boobu dafa benn bis ma ñëw suba teel jaww ne ma kaay ma ñëw mu lal na boo sax ni ma daa am loo xam ne dama cee dama la cee bëgg a laaj xalaat ak waay taxawaa dox gi mu def la sa ndigal laaj ci déglu sax la wax la ma ci wax loolu laay jëfee jox ndigal mooy mu ne ma njàng mi dama cee sonn loolu te ko uma ci benn najaax mu bëggoon koo bàyyi ci liggéey bi dëgg dëgg liggéey ma ne ko ah ndax xale yi de pine gi leen di pine ñu ñàkk dem ci football rek caaxaan rek da koo jar asement nag nekk ci leen waaye dafa jóg nooyi waat nooyi bu foor daal di mbir bi li ma jaaxal mooy li ñuy wax ibbi la akub toll ne dafa gis këyit wuñ wuñ lem ba mu toll ci def ko ci jimbileg mooy këyit gu toll ni wu rëy waaye bindum sëñ Tuubaa ne ci biir këyit bu ko xoolee ngir sëñ Tuubaa bind ci xale ka lillaahi tabaaraka wa taala digal naa la nga jàngal xale yi koo ci nangu digal naa la nga jàngal xale yi warul naa ci nga jàngal xale yi moo tax ma kon ndigalu sëñ Tuubaa ndax téere booba daa jékki-jékki rek gis ci mbindum sëñ Tuubaa boo xam ci loxoom la loxoom la ko bind te daa mel ne ku jàkkaarloo di nag najaax bi mu am ci alxuraan looloo ko ko may loolu ne bu dee daj na ko te benn donga loolu nag ba tey jaboot bi ci lañ ñoom sëñ Seex ñoom sëñ Mustafaa ñu ngi ci njàng mi ak njàngale loolu nag mooy defar réew yar xale ba mu jub nga teg ko ci yoonu jub jàngal ko liggéey loolu mooy li am solo te loolu la sëñ Sadio nekkoon muy jëmm joo xam ne kenn du ko fàtte ndax gëm gi yàlla ak ragal gi foo ko takk wees na ko sama saaga ji taw sax day jàpp ni moom moo doon suñu borom di jullit boo xam ne kër gu mu def dugg daara ju mu def jàkk ngay jëkk jot ci buntu kër sëñ daara ñuy jàngale alxuraan teg ñuy jàngale xam-xam Matar Gueye bi toog ci sama wet na la nekkoon sëñ daara la woon daan jàngale alxuraan waaye jëwriñ la woon itam jëwriñu tool at mi mujj mi maa peese gerte gi bi fay nekk amoon na ñaar téeméeri bëri moom rek ci tool lépp da koy jox ci fi nekk sëñ Tuuba nee na bay lekk moom daan tool ne séeréer rek ko war a def bay lekk nee na rek ko war a def lu ma saa bay ko jëfandikoo da koy jox te day jànkuwante coono boo xam ne kenn mënu wax ndax jamono ji neexut woon te daawut yor dara añuy guddi sax bari na jàpp ni moo ko jublu waaye ñàkk dépense rek la waaye du ko jàmbat mukk ku mel noonu nag ku ko am muy sa kilifa war nga koo bàyyi xel war nga koo fàttali tax ak doylu dafa baax suñu borom da koo bind man aj ko ci wàcc ko yaa koy fekk si te léegi yi kenn doyloo doyloo boo ko seen ñi def agressé yàkkam seen war sa di ko xëcc dafa la wax am sa ma ne ko bàkk ne ma yëngatu ba àdduna daan ko defe ma ne ko déet mu ne ma digal naa la ko def man mi ma ciy toll dama ko daan def waaye bul dem ba fàtte sa bopp yées nag mooy fàtt sa bopp nit ki daa war a xam boppam ndax nun bind yi li ñu yël dañ koy jot li ñu sëñ Tuubaa liggéey lañ koy kon nag góor su nekk toog sa kaw wala sa koppe di jeexaat mën naa ñàkk te ñu noonu la ñu def da bàyyi la ngay war a la nga fa nga war a nekk ak la nga war a def di topp borom xaalis wala di topp nguur wala topp leer lu ëpp ku dund yàlla war sagal ku dund yàlla karam sëñ Saliou fii la nekkoon bay di fi jaam ñëpp te mës a jaay ngorom mës a sànq diineem mës a toroxal doomu aadama ndax daa daan wax ni nit ki la naq ci yow da nga koy miir la neex ci te nit ku ne am na fukki jikko waaye da seet benn ba nga ci mën a ànd ak nga ànd jàng bi sa yoon bañ caa nekk waaye ñun ñun léegi dañuy gëstu mbiru doomu aadama rek gëstu yoon nekk bi ma ñëw maa ngi ànd ak sëñ Saliou Thioune mu seet rek ak njaboot sëñ ngi ci biir sëñ Jiiri ak euh, sëñ Abdou mi nga xam ne waa kër soxna Maam waaye sëñ Abdoulaye daal dañ lay sant di la gërëm ci lii nga def defal na ko ñëpp defal ko sab kon ñu ngi ñaan ci barke subhanahu wa taala mu kàttanal la dolli ci yàgg say tem mën ngaa def leneen mën ngaa ne ci leneen waaye nag fab sax alal def ko ci yoon yàlla loolu kenn du ko def kenn ko def di ko ndax da ngaa lebal yàlla bor te yàlla nag am nag fay man sa la si yëpp laa xam naa sa fay daa ngi foofu di nga lebal suñu borom yàlla yëpp daj taalib yëpp wasalaamaaleykum Mbàkke alhamdulilah kon léegi gis ngeen kàddu gi day nuru na turandoo wi mooy Cheikh Salif Mbàkke ku ko xamoon xamoon ko ci ne waxtare ay jëf waaye bëggoon tur tànk lool rawatina nag di jàng alxuraanul karim kon turandoo wi dëppoo na waaye kàddu gi ñëw na dëggal ko jërëjëf sang bi kàddu gi tedd na lool su ko defee dañuy daal di wéyal li nga xam ni moom moo di liggéey bi ñu daldi di jàll nag ci sunu sang yi nga xam ni ñoom itam ñoo fi teew ñu tànn ci ñaar rek ñu jël kàddu ci turu ñi fi teew ñépp di ay kilifa diine su ko defee ñu ngi sàkku ci sëriñ koso Muntaxa Mbàkke mu ñëw jël kàddu gu njëkk googu ñeel këru diine yi nga xam ni ñoo nekk senegal te seeni ndaw teew fii ci jataay bi bismillah sang bi sëriñ koso Muntaxa mu jël kàddu kilifa diine yi su yeggalee ñu jox sëriñ Sidi Ahmed si incha allah bismillah sang وسلم على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وعلى كل من اقتدى بهم إلى يوم الدين أما بعد فإخوة الإسلام رسالة الإخوة الكرام أيها الأفاضل وزعماء الدين والمسؤولون والإداريون والدبلوماسيون والأساتذة والقراء والأعداء المنظمون أيها الجمهور الحاضرون والمتابعون أينما كنتم يسألني باسم الخليفة العامة للطريقة المريدية الدائرة الإسلامية المريدية الشيخ محمد حفظه الله تعالى ورعاه ونصره وأيده و يسألني أن أقف أمامكم وبالنيابة عن سائر الملوك الإسلامية ويسرني أن أتوجه إلى سيادتكم العالية بهذه التحية الإسلامية mubaaraka ala wa iyyaakum assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh uxassisu bi taxiyatin tayyiba wa jaziila shukrin wa kabiira taqdiirin li fadiilati muassisi sharikati Silicom allati qad taqarrara له الفضل والاعتبار في تنظيم وإقامة هذا الإجماع الاجتماع القرآني السنوي وهو رجل الأعمال السنغالي السيد عبد الله جاب نصره الله تعالى وأيده وإن هذا الاجتماع المعقول لاختتام جلسات السباقية القرآنية لهذا العام وتوسيع الجوائز المرصودة فيها فإنه أيها الفضلاء لمن أجدر وأكرم ما يستجاب فيه نداء مناد ودعوة داع لأنه قد أقيم في سبيل خدمة كتاب الله العزيز وتنشيط الناس وتسطيعهم على المحافظة عليه والاعتناء من حيث الحفظ الوثيق المتين المجود وحسن الأداء والتلاوة فإن ذلك لمن أشرف ما يتنافس فيه وأجل ما يتسابق إليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بالإضافة إلى كون ذلك وسيلة من الوسائل التي ينجز بها وعد الله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ الحجة تسعة وقوله سبحانه وتعالى أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والسلام فإن هذا الوعد الذي من عند الله جل وعلا في حفظ قرآنه الكريم ومنه ما هو أمر إلهي وتدخل رباني صرف ولكن في المقابل ما هو جزء مهم وقسط كبير قد حل المسؤولية مسؤولية قد حل مسؤولية جزيمة قد تراكبت على عاتق كل مسلم مصداقا لقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أيها الإخوة ويجب إذن على كل من المسلمين حسب طاعته وقدرته أن يولي لكتاب الله الكريم همة عالية واهتماما بالغا لأجل أداء تلك الأمانة الربانية التي هي وديعة أقمن عليها وسوف يسأل عنها يوم القيامة ويتجلى ذلك الدور البشري في حفظ كتابه تعالى المبين في طرق شقة منها ما قام به مجموعة السيكو من إقامة هذه المسابقات القرآنية التصديعية التي تبعث في نفوس الطلبة الرغبة والحرص الشديدين بالإقبال على كتاب الله العزيز والإتقان فيه وجزاه الله خيرا وهذا جهة من أهمية ما قمتم به ومن وجه آخر فإن هناك عوامل عوامل أخرى قد تدعو المسلم عموما إلى الاعتناء بتنفيذ رب العالمين بقدر مستطاعه وبأية وسيلة قد سنحت له ومنها تلك المكانة الرفيعة والشأن العظيم الجليل الذي احتل له القرآن العظيم في حياة المسلم لأنه أولا المصدر الأول من المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية العقيدية الإيمانية التوحيدية والعملية الإسلامية الفقهية والأخلاقية الإحسانية التي لا تصح الإسلام إلا بالتلبس بها على طريقته الصحيحة وبدون القرآن لا تصح عبادة بل ولا يوجد دين أصلاً ثانيا فإن الذكر الحكيم صفة من صفات الله تعالى الواحد المعبود بحق ثالثا القرآن الكريم هو المعجزة الخالد لنبينا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم التي تعتمد بتلاوته كما ورد في تعليم سيدي عبد الله الشنقيطي في ملاقيه له الأفضل منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعامل السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi maa ngi jégalu bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk te jóge fu sori rek moo taxoon ci tuum sëriñ bi ma bëgg leen ay kàddu bu dégg tuuti rek maa ngi wax asalaamaaleykum di nuyu mbokk yëpp di tàmbalee nuyoo bi nag sëñ Abdoulaye Dia mi nga xam ne moo fi woote bis bii ak taxawaayam bu rafet bii nga xam ne mi ngi koy taxaw ci lii ci at yi yëpp yi nga xam ne ñu ngi koy def muy loo xam ne yàgg na te bu su cee yokk bu su cee dellu gannaaw benn yoon la gërëm ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ma ne ma naa ànd ak sëñ Muntaxa Pakala bi nga xam ne moo ko yoral daaraam bi ci daaru Tanzil ci at mu ngi nii mu taxawee di ca góorgóorlu mu boole ma ak moom ne ma naa ànd ak ñëw fii ci yow boole ma it ak sëñ Xaadim jarbaatam ne naa ànd ak moom ñëw teew fii ci bis bi mu ne nag nañ la jot li ngërëm ak cant te xam ne lii ngay def moom la ko defal di sant sa xarit sa wóllare sëñ Moustapha Ndiaye di ko gërëm ci taxawaayu prophète ci diine ji waaye ci sawet ñu àndandoo ko ñu àndandoo prophète ñu nuyu sëñ Bas ñoom sëñ Xaadim Awa Ba di ko ziyaare di ko gërëm moom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak yéen ci liggéey bu rëy bii nga xam ne liggéey la bu rafet boo xamante ne sagal na alquran sutaal na alquran yaatal na alquran teral na alquran ndax dañoo seetlu ne bu njëkk ci gannaaw tuuti rek donga yi ñoo daan daw bu njëkk waaye ñu dem diggante boo xam ne dafa mel ne donga yi dawatuñ waaye sëriñ daara yi ñooy daw wàcc leen fa loolu nag bu lu mel nii di day am dana tax ñu xam ni dana leen dimbale taxaw leen ci seen i bëgg-bëgg taxaw leen taxaw donga yi jàppale leen ba seen xel bu masal màcc jëm di fi bàyyi daara di dem ndax bañ leen di formé booba am na ñeneen ñu ñuy formé ci leneen ñu ñu leen ci alquran kon war nañoo mën a xam ne alquran métier la ñu def ko métier waaye buñ ci amul ne ku leen ci taxaw ko mel ni yéen ak lii ngeen di def bu boobaa ñoom mën nañ fee def mën nañ ko daw bàyyi fa daara jëm dem seen kon sëñ Ablaye ñu ngi lay ñuy yow ñu ñuy romanc ñu fi nekk yëpp ñu ngi itam ministre bi ñu seen Antoine Diome ko nuyu bu baax ñuy mboolem délégation yi nga xam ne am nañu benn ci turu ñu sama kilifa yi nga xam ne toog nii sama wet samay kilifa nga xam ne kenn ku ci ñoom mën na fee teewal sëñ bi Moustapha tey ndax seen diggante ak moom xam nañu ko loolu itam ñoo ngi leen di nuyu benn saa leen delloo wàccuwaay bu baax a baax leen gërëm bu baax a baax di euh, jottali rek li nga xam ne gis nañ ko ci sëñ am sa taxaw fii ci sëñ Saliou sëñ Saliou ku ne mën nga cee wax macha allah waaye moom moo ci waaye sëñ Saliou dafa doon nit koo xam ne yàlla da ko dimbale mu judd ci alquran yaru ci alquran dundam gépp mu def ko ci alquran ba nga xam ne kon bu bëgg tënk li xew da wax rek ne teraanga ji ñu tuddee yaayoon na ko mérite bu ko bëgg a tënk noonu dañu koy wax ci gàttal waaye da nekk lépp ci ay ruqruqaan ñëpp te wax ci jotaay bii kon ngi nuyoo ñu gërëm ñu ngi sant sëriñ bi nag bàyyi wu ma woon noonu bi muy bi ñëw daf maa boole ak Muntaxa am ndigal bu ñu ko jox mu sant ay bayit yoo xam ne da koo def ci bis ak sa jëmm ak taxawaay wala maatu ko fii nag day ñëw moom jàng bayit yooyu ñu bokk ñu ñëpp dégg ko ñu doog a delluwaat toogaas bi dégg rek mu jàpp ne sëñ bi nga xam taxawaay mu def fa ay bayit ñu ko tëratul nag léeg-léeg mu santaane ci ñu def kon dañuy wax ne bismillahi rahmaani rahim yubaahi kitaabullahi bishran bi yawmihi bihi qaama abdullahi xaqan bi dawrihi يباهي كتاب الله بشرا بيومه به قام عبد الله حقا بدوره يدوي صدى الآيات من الرجال بترتيل صبيان عضو من ثماره يدوي صدى الآيات من كل جانب بترتيل صبيان عضو من ثماره لقد أتقنوا القرآن حبا برسمه وتجويده دوما كتحسين سطره لقد أتقنوا القرآن حفظا برسمه وتجويده دوما كتحسين سطره jasa allahu abdallahi xayra jasaihi wa abqaahu faxran id hadaahu li dikrihi laqad anfaqa al amwaala lillahi rabbihi bi takrimi ahli dikri rawman li xayrihi laqad anfaqa al amwaala lillahi rabbihi bi takrimi ahli dikri rawman li xayrihi madaarisa qur'aanin banaahaa kama adin yumawwinu كل اليوم جمعا بنصره مدارس قرآن بناها كمعد يمون كل اليوم جمعا بنصره حماه إله العرش خير حماية وألبسه التقوى دواما ببره على خير خلق الله صلى إلهنا بآل وأصحاب أطاعوا لأمره وصلى الله عليه وسلم ak ca ak la rek ci ngërëm sëñ Ablaye jërëjëf asalaamaaleykum jërëjëf sang bi jërëjëf ñu ngi tuubaat bu baax a baax xam naa waxtu yi rek moo ñu xaw a tënk tuuti desee tuñ lu mat waxtu te li des ci liggéey bi xaw naa takku tuuti kon ñuy sàkkuwaat ci képp ku jëlaat kàddu rek boo ñu ci mënee saraxaat eh, aslëf dana lu gënal kon su ko defee ñu eh, wax ni waaw ñu jàll eh, directement ci kàddu Serigne Sidi Ahmed Sy su ko defee su ko jàll li ci des sang bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء القائل في محكم تنزيله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والقائل أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين جعلنا الله من والصلاة والسلام على من قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه الذين آووه وآذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ubbi ko tur yàlla subhaanahu wa taala di sant yàlla di ko bàkk di ko kañ ci fursa occasion bi ñu mayati tey ci mbaaxam ak yërmandeem dara waru ko ci loolu lii coobareem la mbaaxu yàlla di ko sant bu baax di ko ñaan boole ñu nangul suñu ay cant li ñu war a sant yàlla bari na lool waaye bi ci war a jiitu mooy xewal bi ñu yàlla boole defal ci mbaaxam ne bu ko doon jaay ci laaj prix kenn amul njëgam te mooy ni'matul imaani billah yàlla moo koy war sëggale jaamam gannaaw bi ñu ko bindee ba pare ñu bokk ci xéewalu suñu borom yi ñu rafet njort suñu diggante suñu borom subhaanahu wa taala di am yaakaar ci suñu digganteeg moom ne ñi fi teew ñëpp mën nañu wax te wax di ñu sante ko yàlla ne ñu ñëpp yàlla boole nañu min ahlil imaan yi insha allahu taala ci jataay bu tedd bi nga xam ne jataay dootu ko gën a tedd jataay bu màgg bi jataay dootu ko gën màgg ndax amuñu lu ëpp alquranul karim te mënuñu ko am te duñ ko am muy waxu yàlla subhaanahu wa taala mu wàcce ko ci jaamam di yonentam di soppeem di sangu lépp lu yàlla bind muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu gi mënoon na bañ a jib ndax damay faral di wax ne toujours benn yéene bu sellee rek mu doon ci ñun te la yàlla yanka wala yéene boobu yóbbaale nga képp koo xamante ni yaa ngi ci ëttu ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayidana muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam njëkk ñuy ñëw kàddu yi fi jib ak kàddu gi nga xamante ni suñu mbokk suñu soppe yëkkati na ko léegi te jiite délégation bi di cheikh Hamzatu Mbakke bu suñu bàyyi cheikh Abdul Ahad bu suñu maam cheikhul Xadim radiallahu anhu ajmain yóbbaale woon na ñëpp ñu ne déet kàddu gi maam Thierno daaneel léegi xanaa dañu mënul gànt moo tax te itam ñi moom kàddu gi waroon ko yëkkati ñu ngi nii toog di sëriñ Ahmada si bu Sidi Jamil bu sëriñ Babacar si bu Cheikhul Xaaji Malik sëriñ Mouhamadul Habib si bu cheikh Mouhamadul Mansour borom daara yi bu sëriñ Babacar bu cheikh Alxaaji Maalik wala sëriñ Babacar Cissé bu soxna Umul Xayr bu sëriñ Babacar bu cheikh Alxaaji Maalik ñu nuyu ñi fi teew ñëpp nag ziyaara leen du li am solo ñun ñëpp yàlla nañu yàlla gisal boppam gis-gisu yërmande gis-gisu texe ba fàww gën ñu saxal ci siraatal mustaqim te gunge ñu ci bañ ñoo bàyyeeg suñuy nos bopp ndax li taxawu doomu aadama dafa bari ñett yi benn diituwu leen ci yàlla wax nañu wax wax na kook ñun ci alquran alcheytaanu llain an nafsu l amaara ak hawa nafs inna alcheytaana lakum aduwun mubin fattaxiduhu aduwan inna nafsa la amaaratun bi suu wala tattabici alhawa fa yudillaka an sabilillah ñett yooyu yàlla nañ ci yàlla boole musal di nuyu kilifa yépp di leen ziyaara di nuyu kilifa jataay bi fa tabaarakallaahu di sant yàlla bu di gërëm di bég ci bés bi suñu wayjur suñu sëriñ suñu kilifa giñ ko jagleel muy cheikh Saalih Mbakke radiyallaahu anhu ku nekk ci ñun xam na taxawaayam ci ëttu diine ak fonk bu mu fonkoon alquran bàyyi njaboot gi xel li mu samp ci ay daara kenn mënu ko lim lépp lu ca war yàlla di ko ca dimbali boromam mu di ko ca def fa tabaarakallaahu kon ameel nañ ko njukkal yal nañu yàlla wuutu fayal ñu ko bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci des mooy ñu gërëm bu baax sant bu baax alxaaji abdallahi dia ak cheikham mbokkam alxaaji mouhamadul moustapha ndiaye di mouhamadul moustapha dia ak mbooleem ñi nga xamante ni tey ñu ngi taxaw takk seen ndigg di ko jàppale ci liggéey bu demee nii mbokk yi lii mooy mbir mi hakada hakada wa illa fala yal na alquran nekk suñu ndimbal yal na alquran nekk suñu wéttal yal na alquran nekk suñu soppe yàlla na alquran nekk suñu lépp ak suñu fépp jataay bi yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay yàlla nañ ko muurloo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jotal leen nuyoo ziyaara alxalifa sëriñ babacar si mouhamadin il mansour ci ndigalam ak i rakkam cheikh alhaaji malik maodo sëriñ babacar abdul aziz mu amee daaraja ak i rakkam ci la ñu jóge ñëw waaye tamit ñëw dabu si tuyaaba ndax lii jataayu texe la jataayu yiw la yàlla nañ ko yàlla wërsëgale hada wa billahi tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sang bi si di Serigne Sidi Ahmed si kàddu gi tedd na su ko defee kon dañuy jàll rek ci li nga xam ni moom mooy topp ci programme bi monsieur le ministre Félix Antoine Diome di ministre du pétrole et des énergies mi ngi ci jataay bi waaye ñëwee fi beneen tànk mooy ku ne xam na digganteem ak ki nga xam moo jiite liggéey bi di Cheikh Abdoulaye Dia ñu ngi rafetlu teewaay bi monsieur le ministre di la ndokkeel ci ki ñu tuddee bis bi muy sa sang ba Cheikh Salif Mbacké euh, di wax ne tam monsieur le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur monsieur le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de l'innovation muy professeur Moussa Baldé moom ki ko teewal moo di le directeur de daara di sunu mbokk Serigne Babacar Samb monsieur le ministre joxe na 2 millions ngir jàppee ko ci liggéey bi yal na ko yàlla fay jërëjëf euh, Serigne Babacar Samb euh, docteur Abdou Aboubacar Sarr di directeur général au délégué général au pèlerinage au lycée de l'islam moom mi ngi nii toog ñu bokk ak moom liggéey bi yàlla nañu ko yàlla fayal su ko defee dañuy dag jàll dégluwaat nag sunu ndongo yi ndax ñaari kàddu rek moo ñu desee muy kàddu monsieur le la région de Dakar ak kàddu jury bi ñu daal di proclamer nag résultat yi waaye ci diggante bi ngeen nangu koog man nu dégluwaat sunu ndongo yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkoon di jàng waaye ku seetlu di nga gis ni salle bi du nun rek sénégalais wolof noo fi nekk kon nu may ma benn 30 secondes rek ma wax ni euh, pour nos amis étrangers nous organisons aujourd'hui la cérémonie de remise des prix issus des deux finales une nationale et une autre internationale euh, ces finales sont organisées par le groupe Sénico et les prix sont appelés Grand Prix Sénico de, recita de récitation du Saint-Coran. For the English countries, today we are organized the award ceremony from two finals, one national and another one international. There are Quran competition organized by Sénico in Senegal. We tell to all to you thank you very much thank su ko defee ñu daal di nag eh, wéyal li nga xam ne moom moo di programme bi jàll ci délégation yi nga xam ñoo fi teew ñu jàppale ci tuuti rek Serigne Djili mu gën a gaaw délégation Serigne Mouhamad Mahi Ibrahima Niass eh, teew na fi ki ko jiite moo di Cheikh Barham eh, Seck mi ngi ànd ak Cheikh Abdoulaye Faye imam Sidi Alioune Kunta Cheikh Ahmad Tidiane Haydara ak Seydi Alioune Thiam ñu rafetlu tam teewaayu yeneen ambassadeur yi nga xam ni Cheikh Oumar bi muy lim dañoo yegseegul muy ambassadeur euh, Hassan Askari bu Iran donc nous notons la présence de son excellence Hassan Askari de l'Iran son excellence Ousmane Ahmad du Soudan et Cheikh Mahmoud Awad qui est le président de la communauté libanaise à Dakar su ko defee mbokk yi dañuy jàddi jàll dégluwaat euh, ci sunu euh, ndongo yi su ko defee bu ñu eggalee nag ñu woo monsieur le gouverneur mu indi li nga xam ni moom moo di kàddoom kon ñu woo Amadou Wuri Diallo mu ñëw jàngal ñu alxuraanul karim Mouhamad Amadou Wuri Diallo moom bismillah jàngal ñu alxuraanul karim moom it mi ngi bokkoon ci ñi nga xam ni ñoo qualifié ci final national bi te mooy final bi doon gis jongante juróom fukki candidat cañ ko doon def ci institut islamique ñu teewlu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 ونكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد له عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقى اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتموا شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكر تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا أله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني لعلي آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخبر لعن عليك إنك بالواد المقدس طوى صدق الله العظيم تكبير macha allah kon mi ngi noonu muy Mouhamed Wuri Diallo moom mooñ doon jàngal noonu su ko defee dañuy jàllar ci keneen rek daal di dugg nag ci kàddu euh, monsieur le gouverneur de la région ak kàddu jury bi incha allah dal di joxe nag résultat yi su ko defee ñu jàllale kàddu gi ci Abdoulaye njaay mu ñëw jàngal ñu alxuraan Abdoulaye bismillah kaay jàngal ñu alxuraanul karim xaaral tuuti xaaral tuuti ba ñu génn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 صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم ومعالي عذابا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن ولكم فيها منافع كثيرة ومنها ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل sadaqallahul azim allah waaw mi ngi noonu de lu waxtu yu gën a dem muy gën a màgget yi fi gën a neex alquranul karima ngoog eh, macha allah kon xam naa li ñu dese ci waxtu bariwul ñu tënk tënk rek eh, di wax ni njabootu alxaaji ibrahima dia te ka nekk ca bopp di sëriñ abdul xaadir dia Cheikh Abdoulaye gis na leen mi ngi leen di sant leen gërëm ñoom ñëpp macha allah seen kàddu duggaale na ci kàddu yi nga xam ni docteur Khadim Silla mi ngi ko doon jël ci njabootu nja yépp macha allah yal yàlla fay seen teewaay euh, délégation bu Abdou euh, Serigne Abdourahmane Fall Tilala ki ko jiite mooy Serigne Mourtada Fall euh, délégation bu Serigne Makhtar Naar Lo bu kokki macha allah ñoom yegsi nañu di délégation bu amam solo yal na yàlla fay leen Serigne Ahmad Lo moom moo nekk ca bopp ak ñi mu àndal délégation bu Médina Gounass euh, Serigne Thierno Mouhamadou Siraji Sow ànd nag délégation bu takkoo takkoo takk monsieur le directeur général du WAQF de la haute autorité du WAQF di monsieur Racine Ba moom itam teew na fii ak délégation bu am solo euh, monsieur le gouverneur de la région de Dakar moom it macha allah teew na kàddoom léegi mu ñëw si incha allah madame Awa Diop Mbacké di ministre conseiller. yore li nga xam ne moom moo di Badeya moom itam macha allah mi ngi fi sunu wayjur Baye Alxaaji Mansour mbay moom itam mi ngi ci salle bi Serigne Seydina Issa Laye Sall bu njabootu Layeen moom itam mi ngi fi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin bu cadre unitaire islamique moom itam mi ngi ci salle bi El As Ndaw bu Ndukumaan euh, jiite li nga xam ne itam mooy wa jaahidu nuru liggéey bi ñuy def moom it mi ngi ci salle bi sëriñ Cheikh Tidiane Eh, makki taal moom it ki ko teewal moo di Thierno Bachir El Hadji Serigne Seck bu c moom itam eh, teew na su ko defee ñu barkeeluwaat ci xam naa benn ndongo rek sëñ Talla ah ñu acca kon eh, soxna Roqee Dieng soxna Roqee Dieng bismillah xam naa kon ñu tënkal ñu ko defal ñu ko safxa rek su ko defee ku ci jàng safxa rek délégation soxna Bali Muntaka jërëjëf jërëjëf sang bi bismillah soxna Roqaya ñu teewlu la buñ paree jàll ci leneen incha allah soxna Roqaya Dieng bokk ci candidat yi nga xam ni ñoo qualifié final national bu Sénégal ci الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن حبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذي وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض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 Mouhamad Hamda mu ñëw jàngal ñu moom itam li nga xam ne moom moo di alquranul karim Mouhamad Hamda taal ya cheikh taal aywa bismillah wa min Mauritania Mouhamad Hamda su ko defee su eggalee rek incha allah euh, suñu kilifa docteur Mahmoud Hassan Bousso ñëw joxe kàddoom gouverneur joxe kàddoom ñu joxe raay yi incha allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها رجلان من الذين يخافون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم الباب أنعم الله عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا Sine Diop bu Ndar ñu xam ko ci taxawaayu euh, daara ji macha allah di borom xam-xam bu mag moom itam mi ngi ci jataay bi ñu ngi koy sant ko gërëm euh, directeur cabinet bu Ismaïla Madior Fall di monsieur Lafon mbay moom it mi ngi fi euh, kon su ko defee ñu sàkku ci suñu kilifa dokteur Mahmoud Hassan Bousso mu ñëw jël li nga xam ni moom moo di kàddoom mu ñu ñu jéggal ma gouverneur moo moo war a jiitu su ko defee su paree rek euh, jury yi joxe kàddoom ñu joxe résultat incha allah. monsieur le ñu nag jot information ba mu solo mooy waajukaay yi nga xam ne indi nañ ko Grand Théâtre yëpp yow yaa ni yaa ko jël gàddu ko ci sa yëfi bopp ndax tam liggéey bi sëb liggéey yal na yàlla fay na monsieur le gouverneur. auzu billaahi mina asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu euh, maa ngi yëkkati kàddu kàddu yu xam ni du gudd di ko yëkkati ci turu njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall muy ay kàddu nuyoo di ay kàddu cant waaye it di ay kàddu témoignage nuyoo boobu nag mënuma wax lu gudd te jëluma ko jagleel ko d'abord kilifa diine yi nga xam ni ñoo nekk ci këru diine yu Sénégal ca bu ñu amee seetlu lool kër boo ci jël ci senegal am na ndaw bu ko teewal ci saal bi kon nag ñu leen di jox nuyoo njiitu réew mi di leen di ñaan ngeen yeggaleel ñu ko ca suñu kilifa yu baax ya bu ma nuyoo kilifa diine yooyu dinaa nuyu ñi nga xam ni tey ñooy waa daara daara di jàngale alxuraan di former xale yi ci diine di jàngale diine de manière générale ñoo ñit euh, jaadu na balaa ñuy dem fenn ñu nuyu leen nuyoo bu ñu nuyoo bu ak war waaye it dinaa nuyu suma kilifa ndax mi ngi ci salle bi muy le ministre des énergies et du pétrole muy monsieur Antoine Félix Diome fii ma taxaw su ko neexoon mooy taxaw fii wax te su boobaa it war na fee taxaw wax ndax ministre de la république waaye ci baaxam ak ci xam administration mu ni ma gouverneur man kat sama xarit moom ma invité muy sëriñ Ablaye Dia moom laa ñëw wuy si invitation fii ci saal bi nag yow yaa fi délégué président di représentant de tous les ministres kon nag kàddu gi loolu it xamale ko ñu xam ni noonu la doxale waaye nuyu ko nuyu itam directeur des daara nuyu nag sëriñ Abdoulaye jaw bu baax a baax a baax di ko sargal bu baax ci jiitu ci réew mi bésam bii xam naa ko bu baax euh, yàgg naa koy teeweet nekk ci région yi di fay fekk di ànd ci liggéey bi ba ñi ma ñëwee Ndakaaru bokk ko ak ñoom kon bés bi lu bees ci man xëy na teew taxaw di wax mooy lu bees li waaye bés bu ma xam la ma am cawarte nag ñëw fii ak mbégte maanaam dinañ lay yónni nga bég trop ci yónnent ba li koy waral ñaar ba ñett mbir dong la benn bi ca ka la yónni la beneen bi ca kañ la yónni la ba ca des mooy lañ la yónni ndawal administration kat bu ko président yónnee defe naa ne jàpp na ni honneur mënul lay loola gën lu mën lay loola waaye bu ko yónnee ci Thierno Ablaye maa ngi wax Thierno ndax dama jàgg naa Kolda foofu ak Thierno la ñuy wax ci sëriñ Serigne Ablaye Dia bu nga xam ni dëgg dëgg dëgg dëgg réew mi amee na ko jukkal ndax ci wàllu investissement mi ngi jàpp bu baax di ànd ak état waaye ci wàllu bésam bi bokk na ci luy forme xale yi bokk na ci luy yëkkati diine kon nag kooku it ku ñu yónni ci moom war ngaa mën a bég li des nag mooy ñetteel bi mooy lañ yónni lañ ñu yónni mooy ñëw bokk ak yenn bisub diine bi bisub islaam bi bisub alxuraan bi nee nañ ma borom xam-xam yi nee nañu islaam mooy jàmm toll nañu fu nga xamante nag réew mi soxla na jàmm soxla na dal te président ku ko dégg it loolu lay woote kon nag ñu ñëwee ba fii muy bésu diine bésu islam bésu alxuraan bésu jàmm jaadu na ñu ñaan suñu borom ngëneel li nga xam ne dina génn ci bés bi te muy jàmm ak xewal dong suñu borom la la wala ko ci réew mi yëpp ba fii ñu jëm suñu borom def ci jàmm bu ko defee ñi nga xam ni wala ki nga xam ni sénégalais yi wóolu lañ ko bu soobee yàlla suñu borom teg ko ci réew mi ci jàmm ak salaam président Macky Sall bi nga xam ne loolu lay woote jox ko léegi ci jàmm ak salaam yàlla ñu suñu borom defal li des nag mooy témoignage foofu lay jeexale ndax booy wax ci mbooloo mi nga xam ne ay boroom xam-xam ñoo fa nekk dangay ngay gàttal moo tax témoignage bi lenn dong la. mooy bés bii wax naa leen sànq yàgg naa ko fekke gis ni amul tànku gannaaw tànku kanam dong la am gis ni ki nga xam ni tam moo ko initié muy Serigne Ablaye la mu tey séentu man jàpp naa ni am na ko bokk wala bokk tàmbali na ko am te damay jàpp sax am na ko ndax tey jii daara dafa imposé wu ci politique économique yi politique publique yi nga xam ni moom la ñuy def Sénégal bu ñu la nee directeur daara am na wax la ay inspecteur daara am nañ ci inspection boo dem wax ni état dafa reconnaître association maître coranique yi jox leen seen cër nga xam ni kon lii sëñ Ablaye sumb am na résultat bi koy firndeel bu mujj mooy tey ji ENAM bu nga xam ni xëy na fonctionnaire yu gën a mag foofu la ñuy génne boo demee concours ba léegi dañ ko ubbil ñi nga xam ni arab la ñu jàng mooy seen spécialité ci ciy jël ñu nekk ay diplomate di occupé poste yu nga xam ne poste yu mag a mag a mag la kon nag sëriñ Ablaye bay nga sa waar yàlla sunu borom fayal ñu la taxawu la ba loo mën ren bu déwénee nga mën raw loola allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waa kay jërëjëf euh, di sant bu baax sëriñ Sidi moom Cheikh Abdul Xaadir teew na ci jataay bi magam di sunu sëriñ sëriñ Cheikh ibnu Cheikh Abdul Xaadir yónnee na fi délégation sëñ Axma doomam sëñ Xabaan ñu dippee ko maamam Mbàkke sëñ Modu Xabaan Cheikh Mohamad Bachir ibnu sëñ Abdul Xaadir ku nekk xam nga digganteem ak sëñ Ablaay na mu daan def defati na fi yónnee na fi xéewal yu baree bare boole ci délégation boo xam ni ñu baree ngi ci xam naa ni dana xat tudd leen ñoom ñëpp sëñ Sidi Mokhtar Sylla buñ ko tuddee rek dana dana doy délégation sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Lakram donte ma nga ca liggéey ba ko sëñ bi sant fale waaye dafa ne sëñ Abdoulaat mu sëñ Abdul Wudoot def leen mbooloo dem wuy ji sëñ Ablaay Dia moom it ñoom it ñi ngi fi sëñ buub moom it délégation am sëñ Amna Saloum Dieng mii nga xam ne moom it kenn la ci liggéey bi moo ko jiite mu yónnee fii juróom-ñaari million 7 millions ak 10 ordinateur incha allah daan leen leeral di ci jëm ci gagnant yeeg yooyu yëpp alaaji ñu ko dana ci ñëw après euh, sëñ Modou Fall mii mook magam sëñ Mahmadan Fall waa kër Baye Ndaama Fall am taxawaay bu ràññeeku ci xew-xew bi sëñ Moussa Ndiaye sànq daf ma woon ni ma ñoom jox na nu 15 chambres ca résidence Mamoun démb wala bërki démb bi ñuy jeexal euh, ndaje bi fii démb ca institut islamique mu ni jury bi yëpp daf leen di solal indi ñoom ñëpp seen ay mbubb loo loolu itam jëf ju réy la war na ko leeral sëñ Sam Bousso yàgg na fi lool mi ngi dend ak Pape Modou lii sa Ndiaye moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu delloowaat kàddu délégation Soxna Bali bu ñu tuddee sëñ Muntaxa mu sëñ Moodu Buso Jang ak jigéenam bii fi teew soxna Musli borom daara ji moom yàgg ak sëñ laay loolu bu ñu tuddee délégation soxna Baali mum Cheikh aboo Madiana Chouaib bu soxna Baali Muntaxa mbooloo mu bare la fi yónnee ñoom it délégation waa kër sëñ Aman Njaay Jóob Daaru Salaam ñëw nañu euh, Sëriñ Seck Alaaji Sëriñ Seck Xaadimul Xuraan C3S def nañ délégation ak nan ko daan defee indi xewal yu baree bare ñi fi joxe seen alal bare nañu lool daañu seet nan lañ koy jàllalee waaye tey ji moom xat na wax dëgg yàlla waaw dafa mel na kon euh, sëñ Ahmadou Bousso Assane président jury bi ñoom ñoo war a jege si bu ko defee leeral seen liggéey ñu commencé nag ci wàllu teral tuutànk yi waaw kay macha allah jërëjëf euh, Serigne Djili kon su ko defee dañuy daal di wéyal li nga xam ne moo doon liggéey bi euh, nous notons aussi la présence de monsieur Mamadou Yatta saay du Mali il est un partenaire du groupe Sénico euh, nous le remercions de sa présence Cheikh Abdallah Dia mi ngi sant di gërëm ñi nga xam ne ñëpp tàbbal nañ seen alal ci bis bu tedd bi defe naa ni buñ nekkoon fii di ko lim yaakaar naa ni waxtu dana romb lu bare bari waaye daal képp koo xam ne jël nga sa alal dugal ko ci bis bi yegg na ci loxo Cheikh Abdallah sant na gërëm na li ci des yàlla gis na ko yàlla na yàlla wuutu fa mu jóge la ca des yàlla ko yàlla gunge yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot incha allah euh, su ko defee euh, sunu Baye Hadj Mansour Mbaye xam naa moom it ñu may ko mu barkeelu rek. ñaari minute su ko defee ñu daal di jëm nag déglu jury bi daal di joxe li nga xam moom moo di résultat yi bismillah pro HF bi asalaamaaleykum maa ngi am mbégte di sant tur boobu tabaraka wa taala mi xam ne mayoon nu daaw nu fekkee jataay bi xam ne benn jataay rek la ci Afrique ak ci Europe et à travers le monde entier sëriñ Cheikh bu sunu bàyyi sëy Saalihu mi xam ni moom la ñu jagleel bés bii di bésam nag képp ku xam sunu baay ba ka doonoon xaadim rasul xam ni léppam alquran la léppam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léppam xaadim rasul la noo nuyu bu baax ak sëriñ Koso mu joxul nu nuyoo sunu xarit ba sunu soppe ba sëñ Muntaxa nu ko nuyu ak di ko ziar bu baax kii xam ni moom la bàyyam tuddee Sidi Ahmed di sunu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bu radiyallahu taala ko nuyu ak njabootu sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick di nuyu nag ki xam ni histoire u yàlla baaxal la di taalibi tijaan bu rëy ñu tudd doomam ba pare mun ma Mansour ñaanal ma ni ko ñaanal mu ñaanal ma sama doom yi bokk ci concours boobu Abdoulaye Dia di dem ci alxuraan ana lu gën a rëy loolu dégg xale bu ndaw bii lu mu wax moo di waaye Abdoulaye Dia bu ko yàlla fayee ndax dana ko attan wallahi dana ko bokk àddina bi yëpp kon Dia ñoo ngi lay gërëm ak la di gërëm rek sa doomu day ñu jooju sa xarit boobu sa soppe boobu kooku xam ne mooy yow ngay moom di Hadj Moustapha ak di ma gërëmee sëñ Koso ba yóbbantu ci bàyyi ma tën di nuyu sama xarit nit ku ne am péete si bas xaalim aw ba sama péete Sidi Ahmed maa ngi laa jox cër yàlla jox ci diine ji ak ci lislaam nga say doom ñëpp ñëw ak say rak si Malick maa ngi laa nuyu bu baax ak di la ziar di nuyu nag sama sët sama xarit soppe wallahi membre gouvernement taxul ma nuyu ko de déedéet yàgg jóge ci surba torop wa taala muy Antoine ma leen toog kenn ci Hadj Abdoulaye Dia Hadj Abdoulaye du ma guddal Moustapha du ma guddal fii rek laa yem waaye daal sunu baay Alhaji Abdoul Aziz dafa Mansour Baye ma ma dafa mel na tabax yi ci Dakar bari na lool ak oto yi man ko loolu moo xew mun loolu bu ci daw kenn papa lu ñu nawee ne mun ma ñu ànd fukki at ngir yàlla wala ñaar fukki at ngir yàlla ca tàggoowul kookoo jaral mooy sama diggante ak yow lépp looy def dem leen kër ma lépp looy wax ne aaj ma suuru mu wax ak sa doomu lay ju baax sa xarit boobu sa soppe boobu xam ne kenn la ci man mii Abdallah li ñuy wax daal mooy yàlla may la gudd fan lool yàlla may la wér lool li nga bëgg ci lislaam bëgg ci diine ji yar nga eggali sa bébét yëpp ci daraje sang bu tedd ba kenn moomu ko bu du suur boom tabaraka wa taala ak rasulullah te jërëjëf euh, sunu wayjur xaaji euh, Mansour Mbaye yàlla na yàlla gën guddal fan wi su ko ñu teewlu euh, ki nga xam ne moo di docteur Mahmoud Hassan moom mi nga xam moo jiite woon ñaari jury yi mu ñëw joxe kàddoom su yeggalee nag incha allah ñu joxe nag résultat yi final incha allah bismillah docteur asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alxafdu alkarim yasuruni an aqifa amaamakum alyawm wa an wa ataxaddasa an hadihi aldawra allati intahat acmaaluha أمس السبت وقد عودتكم شركة سينيكو برئاسة الشيخ عبد الله جاه بإجراء مسابقة قرآنية على المستوى الرفيع وبالنفقات الباهظة وبتكريم أهل القرآن وكان من عادته أنه يزيد جديدا في كل دورة وكان الطلاب ومشايخهم الذين يرافقونهم يعتبرون هذا الحدث عيدا سنويا لمدارس القرآن الكريم وهو كما تعرفون من رجال الأعمال فهؤلاء لا يعرفون الركود على شيء واحد وقد فكر هذه السنة أن يستدعي دول الجوار أو دول مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو ليعملوا مسابقة إضافية يعني بالإضافة إلى المسابقة الوطنية التي كانت تجرى في رمضان وقد تواصلنا مع هذه الدول واستجابت جميعها وجاءوا بمرشحين شرفوا المسابقة وشرفوا بلدانهم بحفظهم المتين وأدائهم الممتاز وأنا أود أن أقول لكم هنا أن هذه المسابقة تتألف من شقين الشق المالي الذي يستحوذ عليه الشيخ عبد الله وحده والشق الفني الذي يشترك فيه باقي العاملين في هذه المجموعه وما رأيتم من تقصير في هذا الجانب فإنما هو على مسؤوليتي أما الشيخ عبد الله فقد وفر كل ما يجب توفيره لإنجاح هذه المسابقة ونعضي على سبيل المثال أن هؤلاء الذين استخدمناهم من الدول الخمسة عشر سيدياو بالإضافة إلى موريتانيا كلهم جاءوا عن طريق الطائرة أولا وبعضهم معقول جدا لكنه سكنهم هنا أسكنهم هنا في فندق بخمسة نجوم وبدون النظر إلى إلى بعض يعني إلى المصروفات وأما الحكام الفضلاء زملائي الكرام الذين هم أهل الاختصاص بالقرآن في بلدانهم فقد سافروا إلينا بدرجة رجال الأعمال جميعهم ويسكنون في فندق بخمسة نجوم بالإضافة إلى توسعة في غاية السخاء والكرم ونحن يعني باسمهم وباسمي نشكره وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده وسعا في المال ووسعا في القدرة كذلك هذه اللجنة تتألف من الشيخ جلال الدين الزيادة من مصر لكنه مقيم الآن في كولاخ والشيخ حسين وعليلي الذي هو مسؤول القرآن الكريم وإقرائه وما يتعلق به في ثالث أكبر مسجد في العالم الذي افتتح قبل أيام في الجزائر والذي يليه لابس اللباس السعودي هو الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ محمد تميم ابن مصطفى عاصم الزعبي والد هذا هو شيخي الذي أجازني في القرآن والشيخ الذي يليه هو الشيخ عبد الباري العلمي وهذا الرجل لما أنتهي من هذه الكلمة سيلقي هنا قصيدة إن شاء الله وسيأتي ويلقي قصيدة وهذا من أشعر شعراء في اللغة العربية في قارتنا الإفريقية والذي بعده والشيخ عبد الإله تجاني من المغرب وهو أيضا في مع الشيخ محمد الشريف السحابي في هذا المعهد الذي هو ابن القاضي هؤلاء هم أهل الشأن بالقرآن في المغرب وقد حرص الشيخ عبد الله على استقدامهم رغبة منه وحرصا على نزاهة النتائج ودفع أي شبهة وأن يرضى الناس جميعا بهذه النتائج لأن هؤلاء ليس لهم مصلحة هنا في هذه البلاد وهم لا يعرفون القارئون قارئين ولا يعرفون مدرسيهم فيرى أن النفقة على استقدامهم أنزه وأوفق وأعدل فلذلك استقدمهم وكانوا على ما كنا نظن فيهم من الخير والعدل والعدالة أولاً والإنصاف كذلك والقدرة على التحكيم وأشكرهم جميعا وأشكر الحضور وأشكر الشيخ عبد الله وبارك الله فيكم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu pour tënk bu gàtt ci li cheikh mosu doon wax pour ñi xëy na ñu déggul langue arabe da doon rek wax expliquer concours bi nee na mooy mooy feetuk daara yi at mu ne sëriñ daara si ak donga di ko jàpp ak feet lu tax daara yu baree baree bari dañuy ñëw daja ndakaaru xale yi bari daje fi ñu feetal leen waaye ñu ànd ak jullit ñi feetoo alquran moo tax ak feet lañ ko jàppe at at mu mooy lu njëkk li ne ñaari wàll la concours bi am genn wàll gi wàllu finance la genn wàll gi wàllu technique la organisation nee na bu amee fuy des day dese ci organisation wala technique waaye desewul ci lépp lu mu laaj ci alal ne Cheikh Abdallah Diagne na ko ne loolu bi joxe exemple nag mooy xale yi nga xam ne ñoo génn ñoo jóge CEDEAO ñëw ren bokk ci concours bi tam daan nekk xale yi Sénégal kese ren ñu ci CEDEAO lu fukki ak ñeent ak Sénégal mu ak juróom ñooñu bi ñu ñëwee ñoom ñëpp étoile dañ leen dalal ci hôtel cinq étoiles yoral leen seen lépp lépp dara manqué wul ne loolu lu mu laaj alal def na ko nee na bu dee kilifa yi nga xam ne ñooy lañu tàkkim bi nga xam ne ci jëkk mooy euh, Cheikh Jalaluddin Ziyad mi jóge Misra ak euh, Cheikh Alwalili al jóge Jazair Cheikh Abdoul Aziz Al-Zouabi jóge Saoudia Cheikh Abdoul Bari jóge Soumal Cheikh Abdoul Ilah Tijaani jóge Maghrib ñu ne ñooñu ñëpp dañuy jëlal ci euh, business class la leen jëlal avion bi ñu ñëw bi ñu ñëwee kenn ku ne ci ñoom ñoom ñu dalalee ci. hôtel 5 étoiles lépp leen fa ak oto lépp dara manqué wul nee na kon wàllu finance lépp ko doy ci xale yi ak ci laj na taxkim bi ak ñu aju ci gan ñi ñëpp mu ne tamit euh, xale yi jàng nañu alxuraan ju set wecc ju rafet ju rafet lool lool lool sax nee lu bëree bëri nag loo xam ne aju ci aju na ci njàng mi moom dafa am loo xam ne lenn li la ñuy déglu di xam leneen li lañ na taxkim bi doon saytu njàng mi ñoo koy xam moo tax daanaka résultat yi moom day génne rek ñu doon xam nu mu demee kenn ko ma ngaa natt fu ne nag waaye bu génnee ñu xam ne lu set wecc lañ def ndax Cheikh Abdallah bëgg liggéey bi am chefafé te mooy mu set am transparence ndax ñuy ñëwee xamuñu fi kenn lañ ne bi noo àtte xamuñu kenn Sénégal kon amuñu benn maslaha ci xale bi jëm nii wala jëm naa xataa xale lañ bi dëkk senegal sax buñu leen topp ta ba bàyyi leen ñoom di bu ñu àtte noonu la waaye ñii daa gën wóor daa gën a wóor te liggéey boo xam ne ni kenn mënut a ñuurlu ba xam dara ci li xew lu dul ñu elaan ko fii asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu نحن نقدم لكم شيخ عبد الباري بن عبد الرحمن وننتهز الفرصة لإصلاح خطأ لأن هذه المسابقة في الحقيقة أنا ذكرت من حكموا يومين وثلاثة أيام wa nasiitu ulaa'ika alladiina xakkamu mundu tasfiyaati al-uulaa واختاروا الطلاب الجيدين وحكموا في المسابقة الوطنية وعاني الدكتور مبالو محمد مبالو فال من لوغا والشيخ محمد الفاجه من كنيل كان ينبغي أن أبدأ بهؤلاء وأختم بهم لأنهم كانوا يعانون من اختيار هؤلاء الطلاب وسافروا في كل على كل شبر في هذه البلاد للتصفيات والاختيارات والإعدادات وحكموا كذلك في هذه الدورة وجزاهم الله كل خير ولأن نقدم لكم الشاعر عبد الباري الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وطالما تشوقنا إلى زيارة السنغال بلد القرآن وطالما تشوقنا إلى هذه المسابقة التي كان شيخنا ووالدنا محمد الحسن بوصو يحدثنا عنها في الصومال وفي كينيا حيث زارنا في المسابقات هناك فكنا نسمع الخير العظيم عن هذه المسابقة وقد رأيناها الآن وهذه الأبيات أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء لجنة التحكيم والضيوف الكرام فأقول وبالله التوفيق ألا فابغن الأشعار أزجي القوافيا فقد هيج الحفل الكريم الذي بيا وزاد غرامي زور من كان قاطنا بسنقال من صحب وأهل وداديا رعى الله أياما تقضت بدارهم ودارهم داري رعى الله داريا أخلاء صدق من كرام أعزة لئن بعدوا لم يرحلوا عن فؤاديا هم أكرم الوفد الذي زار بيتهم نرى دائما إحسانهم والأياديا فيا بلد القرآن سنقال عزة فيا بلد القرآن سنقال عزة هنيئا لكم بالذكر من كان تاليا ففي كل سبق عالمي بعصرنا نرى السليقاني المميز عاليا ففي كل سبق عالمي بعصرنا نرى السنغالي المميز عاليا وفي روضة الآداب والشعر أبدعوا وكم أتعب المسكين فالنظم مثليا وفي روضة الآداب والشعر أبدعوا فكم أتعب المسكين في النظم مثليا ويكفيكم فخرا إمام مبجل مليء بعلم يروي من كان صاديا خفيف على وقع القلوب بظرفه فكل الذي يلقاه يرجع راضيا عنيت به بوصو عنيت, بو عنيت به بوصو محمد اسمه فمن يلقه يوما يرجي التلاقيا على كتفيه قام عبء سباقنا هو الخادم القرآن أكرم مساعيا وآزره بالمال شيخ مبارك وقد جمع الرحمن فيه المعاليا عنيت به عبد الإله الذي هنا فجه جاء بالجاه الموجه جاريا وآزره بالمال شيخ مبارك وقد جمع الرحمن فيه المعاليا عنيت به عبد الإله الذي هنا فجهجاء بالجاه الموجه جاريا ويحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها من المال فانيا فإن يخدم انبوص بعلم مسدد فهذا بمال يخدم الذكر وافيا ولم يرضى عونا من سواه تعففا فنرجو لعبد الله أجرا مكافيا فكم من لديه المال مثر مكاثر ولم يترك الحمد الذي كان باقيا تحيات إجلال لجمع مبارك تحيات إجلال لجمع مبارك هم القوم أهل الذكر حازوا المعاليا وإجلال أهل الله إجلال ربنا كرام يحوزون الذرى والمراقيا وهذه مسابقة القرآن وإنها لأشبال هذا الدين أكرم مساعيا فشكرا لسيلكو بشق سباقها فكم أتقنوا صنعا دقيقا ورقيا أيا لجنة التحكيم طبتم مشايخا ويجري بعبء الحكم من صار قاضيا وكان معي بعد الرئيس حسيننا وزعبينا عبد الإله موازيا ومن قبلنا صحب جلال وفالهم وألفى فكم ألفى سدادا موافيا فيا أيها الطلاب طوبى بحفظكم فكلكم فاز المثوبة راجيا ألا أيها التالون فرعوا حدوده فألفاظ هذا الذكر تبغي المعاني فأنتم عيون الناس كونوا أئمة بعزم وحزم حسبك الرب جازيا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره واقيا صلاتي وتسليمي على خير مرسل مدى كل سحب لا أخص الغواديا وبالله توفيق macha allah kon mi ngi noonu boobu taalif la ñu indiloon docteur Mahmoud Hassan Bousso laata kii taalif di wax nee na mi ngi jéggalu ci Euh, ñaar ñi nga xam waroon na leen tudd te làmmañam fel ko te moo di docteur Mouhamad Mballo Fall ak euh, Cheikh Alpha Cheikh Mamadou Alpha Dia ñoom ñëpp macha allah bokk ci laj na taxkiim bi te moo di jury bi su ko defee kon maa ngi sàkku ci waa technique ñu indil ñu micro sans fil ñu proclamer nag résultat yi incha allah defe naa pare nañ pour ñu joxe résultat yi fi mu ne allah Serigne Talla di joxe résultat yi incha allah micro fill fil s'il vous plaît micro sans fil s'il waa kañ fii léegi sëñ Talla ji yeeg euh, hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba dañ fi yónnee délégation madame Mbacke soxna Diop Fall moo ko jiite ànd ak docteur Awa Ndiaye euh, ki nga xam ni itam mooy euh, sëñ Omar Mbodj moom it indi na participation bu am solo sëñ Kabigé MK kazaalika naka noonu. Euh, délégation sëñ Ablaye Thiaw Laye ak imaamu Cambérène ñu ngi fi euh, sëñ Ousseynou Kane moom it kazaalika naka noonu sëñ Xabaan mi sëñ bi teg alxuraan gi ci loxoom euh, ca Touba yobal na fi délégation bu am solo boo xam ne doomam a ngi ci sëñ Abdou Fatah sëñ Jiili Bousso maam Cheikh ak sëñ Xaadim Mbàkke ak soxna Awa Diop moom faaw ñu tudd ko kon hmm. kon jërëjëf micro sëñ Talla ñëwal bi sëñ Talla yow maag yow saa yu toll euh, su ko defee dañuy proclamer ñaari résultat bi ci jëkk moo di international su boobaa nag dañuy sàkku ci troisième prix bi euh, ambassadeur bu Malaisie moom moo koy joxe son excellence monsieur l'ambassadeur de la Malaisie c'est lui va remettre le troisième prix deuxième prix bi ci international bi docteur Aboubacar Sarr DGP moom moo ñu koy joxeel premier prix bi ci li nga xam ne moom moo di international bi nag monsieur le ministre Félix Antoine Diome yow lañ ko teree yow yaa koy joxe su ko defee suñ demee ci national bi moom mooy deuxième kii bi ah waaw jërëjëf sëñ Talla su ko defee buñ demee ci national bi kiy jël dixième ñu ngi sàkku ci ambassadeur bu Arabie Saoudite moom moo ko joxe son excellence monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite va nous remettre le euh, dixième prix neuvième prix Serigne Ahmad Serigne Ahmada Sy moom lañ sàkk mu joxeel ñu ko huitième prix ci national bi directeur Babacar Samb moom bu direction des daara moom lañ sàkk mu joxeel ñu ko septième prix euh, soxna Maam Awa Diop Mbacké euh, moom moo ñu ko joxeel Euh, sixième prix bi Serigne Mahmadan Mbacké dañ sàkk mu joxal ñu ko cinquième professeur euh, président Moustapha Amadou Wane bu fédération moo koy joxe quatrième bi Serigne Koso Mbacké Muntaxa moo nu koy joxeel troisième bi Serigne Sidi Ahmed Si moo nu koy joxeel deuxième prix bi Serigne aboo Mbacké Daaru Salaam moo nu koy joxeel premier prix national bi nag monsieur le gouverneur de la région de Dakar moo ñu ko joxeel Serigne Talla ñu dem international CEDEAO kan moo jël troisième micro s'il vous plaît waaw sëñ Juga ñi nga xam ñoo doon ko jongante ci CEDEAO bi nekkoon fukk ak juróom yi nga xam ni moo jël troisième place bi mu ngi tudd Mamadou Saliou jógee Guinée Conakry am na quatre-vingt-dix-huit point virgule soixante-six takbir Mamadou moom moo jël li nga xam moom mooy troisième kan moo jël deuxième sa njuga ki nga xam ni moo jël deuxième place bi ci concours CEDEAO bi mu ngi tudd Abdoul Wahab Moussa Lamine bàyyi ko Nigéria am 99 virgule 33. The second prize for uh, the candidate from Nigeria kon moom moo jël uh, deuxième kan moo jël premier ci CEDEAO. Sëñ Juga ki nga xam ni moo jël première bi dafa dalal ay ganam ba noppi nangu nga ñaay li. takbir allahu akbar teraangay Sénégal a ngoog. mooy dama leen di teeru tatagal leen defal leen teranga yëpp ànd kook samay kilifa waaye prix bi nag moom bàyyi leen moo ko fi nag ngeen delloo jàmm incha allah jërëjëf alhaaji Cheikh Dia takbir macha allah alhaaji Cheikh Dia mu ngi am quatre-vingt-dix-neuf virgule cinquante kuñ doon laaj téeméer nga bàyyi fa zéro virgule cinq rek jërëjëf euh, Cheikh euh, aca bismillah kon nañu ñëw su ko defee ñu sàkku ñu leen ko jox ñu jox leen ko ñu jàll nag ci prix national bi incha allah ñëw leen alaaji Cheikh Dia bismillah alhaaji Cheikh Dia bismillah euh, Mamadou Saliou Ba nous appelons aussi Mamadou Saliou Ba son excellence monsieur l'ambassadeur de la Malaisie venez nous voilà kay fi alaaji Cheikh Dia Mamadou Salif Diallo aussi de la Guinée-Conakry la Guinée-Conakry et aussi notre candidat qui nous est venu du Nigeria donc venez venez vous mettre là venez là come here come here please come here please Dia ñëw leen taxaw leen Malaisie yes Malaisie mooy kon troisième prix bi Mamadou Talib Ba am na trois millions de francs CFA trois millions moom la am ambassadeur bu Malaisie moom moo ko jox li nga xam ni moom moo di yem takbir macha allah allez jërëjëf the second prize for the candidate from the Nigeria from Nigeria ki koy jox moo di docteur Aboubacar Sarr bu DGP moom am na cinq millions di juróomi million macha allah allahu akbar cey grand prix bu Sénico cey grand prix bu Sénico oh acca kon monsieur le ministre Félix Antoine Diome wala Cheikh Abdallah bismillah yow yaay remettre le premier prix historique du concours international Sénico pour la première fois remporté par qui Alhaji Cheikh Abdoulahi Dia 10 millions takbir allahu akbar ndeysaan ak muñ gi ndeysaan Alhaji Cheikh Dia ndeysaan waa noonu la de dalal nga say gan waaye nag nee nga leen dellu nag jàmmatee leen prix bi ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf Serigne Talla ñu dem national. Hmm. ci des ñëpp. allahu akbar Serigne Talla nee na cheikh bi nee na képp koo xam ne participé woon nga ci international ñuy 15 ñett ngeen gis fii kon des na fukk ak ñaar kenn ku nekk ci ñoom booy ñibbi da nga yóbbaale téeméeri junni te mooy 500 000 francs muy prime de participation jërëjëf macha allah national. Mm-hmm. ay national national ku jël dixième national national Serigne Ndiouga national bi nekkoon nañu cinquante candidats quarante cinq góor cinq jigéen ni ma ko waxee Cheikh Abdallah di ko wax bis bu nekk concours bu seere woon la bu metti woon la bu jafe woon la kon dafa am ñaari dixième dafa am ñaari dixième dix lañ daan yem mu am ñaari ex aequo bu ko defee kenn ki nga xam ni moo jiitu ci ñooñu ñu ngi koy wax soxna Maguette Sarr dixième place am na quatre-vingt-seize points virgule 33 jóge région bu Louga mu ngi ex ak ku ñuy wax Abdoulahi Diongu jóge région bu Fatick moom tam am na 96 virgule 33 Abdoulaye Diongu Maguette Sarr dixième ex aequo ay wana xale ñëw macha allah Serigne Talla waaw su ko defee dañuy dem ba bu ñu amee rek ba cinquième incha allah ñoom ñu ñëw ñu jox leen ñu jëm nag ci cinq ba un incha allah Serigne moo jël neuvième ah kon neuvième du am xanaa am na bismillah neuvième onzième moo amul neuvième kan moo ko jël. Serigne Diouga ki nga xam ni moo jël neuvième place bi mu ngi dëkk région de Thiès tudd Mouhamadou Wuri Diallo am na quatre-vingt-seize virgule quatre-vingt-trois Mouhamad Wuri jàlloo mu ngi jógee région bu Thiès moom moo jël neuvième takbir Mouhamad Wuri Diallo ñëwal bismillah Serigne Talla kaay ñu xajal leen Serigne Talla kan moo jël huitième. sëñ Ndiouga huitième place bi mi ngi dëkk région bu Dakar mu ngi tudd Alhaji Ahmad Wadd am na quatre-vingt-dix-sept virgule seize. Ahmad Wadd Dakar moom moo jël huitième takbir. Serigne Talla ñëwal ñu xajal leen kan moo jël septième. sa njuga ki jël septième bi mi ngi dëkk région de Saint-Louis mu ngi tudd Mouhamad Niang am na 97 virgule 66. Mouhamad Niang moom moo ci topp moo jël li nga xam ne moom moo di septième Serigne Talla kan moo jël sixième. sa njuga sixième amul dañoo am ñaari ex ci cinquième place. ëpp kon nag ñu ñaan euh, excellence monsieur l'ambassadeur de l'Arabie saoudite de remettre le dixième prix Serigne Ahmada si ñu sàkku ci moom mu jëw joxeel ñu neuvième prix bi Serigne Babacar Samb directeur Babacar Samb moom itam mu ñëw joxeel ñu huitième prix bi soxna Awa Diop Mbacké madame le ministre nga ñëw joxeel ñu septième prix bi incha allah Babacar Samb acca di dixième acca ana ana plaque mu ñëw dixième dixième neuvième huitième septième ambassadeur moom mooy joxe dixième prix son excellence monsieur l' ambassadeur mooy joxe Maguette Sarr Maguette Sarr ñëwal nii ñëwal fii ñëwal jël sa hmm? nii la acca taxawal nii taxawal nii taxawal nii bismillah moom moo jël Euh, jërëjëf macha allah euh, thank you very much uh, excellency allahu akbar waaye lay loolu jërul fàtte mukk kon moom soxna Maguette Sarr soxna la am na un million bi mu jëlee dixième waaye bi muy ñëw jógee fa nga xam ne fa la jóge muy Louga laf na ci kumba séram deux millions yoo xam ni Serigne Moustapha mbokk ci dolli woon kon moom yaakaar naa am na fi mu ne ñaata trois millions allahu akbar hopp law law law Serigne Mbuub dolli na ci un million ah ah réew mi da doon fi jigéen ñi te neex na lool macha allah yàlla yàlla sàmmal ñu sunu soxna yi nga xam ni waa mooy prix dixième aca dixième dixième aca ñu indi neuvième neuvième beneen dixième ex aequo bi Ablaye Jong ñëwal Ablaye Jong ñëwal aca Excellency, please, please, please, please come to give the second prize. Yes, Execo dixième ñoom ñaar excellence moo leen di jox moom itam am na un million macha allah dixième la jël am na un million dixième Execo ni moom moom itam amoon na un million waaye nag waaye waaye ba egg quatre millions alhamdulilah macha allah jërëjëf merci thank you very much Serigne Talla joxel prix. neuvième bi Serigne Talla Mouga thank you very much thank you very ak huitième ak septième nañu ñëw Serigne Ahmada Sy mooy joxe neuvième prix bi neuvième bi Mouhamad Wuri Diallo moom moo ko gagné am na deux millions Serigne Ahmada Sy moo ko koy jox Serigne Ahmada jox ko macha allah acca jërëjëf macha allah yal na yàlla fay leen directeur Babacar Samb bismillah jërëjëf Cheikh Mata jërëjëf yal na yàlla fay leen acca directeur acca macha allah bool yi maa ngi leen di fàttali ni fédération ndeyu daara yi ñoom ñoo ko fi indi bool bi am na jesner am na kaamil waaye ak leget la leget nag dañ koo tëj xawma lu jone ne ubbi xam macha allah kon jërëjëf euh, directeur Babacar Samb macha allah yal yàlla fay la moom moo ñu joxeel euh, huitième prix bi ok waaw kay jërëjëf euh, madame le ministre soxna Awa Diop Mbacké bismillah soxna si nga joxeel ñu septième prix bi Mouhamad Niang la koy jox moom itam am na 4 millions oy xob ko daw jàng alxuraan di neex na Sénégal moom waaw jàng alxuraan yàlla di la fay ngay am say millions say bokk di ko bégee alhamdulilah jërëjëf Sénico jërëjëf madame le ministre yal na yàlla fay ayca Serigne Talla ñu dem cinquième hmm. cinquième place bi moom tam ñaar la dañoo ex aequo ki ci jiitu mu ngi dëkk région bu Diourbel am na 97 point virgule 83 Ndeye Bousso Diatara Ndeye Bousso macha allah cinquième ex aequo ndey bu sa jatara bismillah bu boobaa ñu sàkku ci euh, président Moustapha Amadou Wane bismillah président yaa ñu koy joxal kan la ex aequo Serigne bu sa jatara mu ngi ex ak candidat boo xam ni mi ngi jóge résion bu Dakar moom tam mu am ci ay point lu toll ci 97 virgule 83 muy Abdoulahi Ndiaye Abdoulahi Ndiaye ex aequo macha allah Abdoulahi Ndiaye ñëwal ex aequo cinquième ak Ndey Bousso Jatara su ko defee président Moustapha Amadou nga jox leen dañoo ex aequo su ko defee nag ñu euh, Serigne Mahmadan Mbacké ñu sàkku ci moom moom itam mu ñëw joxe beneen ex bi bismillah sang bi Serigne Mahmadan am na cinq millions cinq cent waaw kay dañoo exéco ñu boole ko séddale ko ci digg bi kon am na cinq millions cinq cent jërë ngeen jëf am na cinq millions cinq cent ak deux millions yi nga xam ni indiwaale na ko ak un million yu sëriñ bu joxe kon de xam naa am na huit et demi allahu akbar hopp law law law na huit et demi fii daal ku fi jigéen jàng rek yow teg ñoo bari incha allah waaw waaw jërëjëf sëriñ Moustapha Ndiaye jërëjëf jërëjëf sëriñ boobu ak ñi joxe seen alal ñëpp te tuddaguñ leen macha allah quatrième prix kan moo jël quatrième su boobaa ñu sàkku suñu kilifa sëriñ koso muntaxa mu joxeel ñu ko seen taala kooku kan la sëñ njóga ki jël quatrième place bi ba tey mu ngi dëkk région bu Diourbel am na quatre-vingt-dix-huit point virgule soixante Mouhamad Ngom. Mouhamad Ngom takbir. Serigne Talla ñaata la ci xaalis. am na juróom ñetti millions huit millions. ëpp la huit millions. am na huit millions kon ñu mu di Moustapha Ngom ñu sàkku ci ki nga xam ni Mouhamad Ngom ñu sàkku ci sunu kilifa Serigne Koso Muntaka mu joxal ni ko li nga xam ne moom moo di ngaayam bismillah ñëwal nii. boole ci itam pañe bi nga xam ni fédération ndey daara yi ñoom ñoo ko joxe. jërëjëf sang bi jërëjëf Serigne Kosso Mountakha aca wan leen public bi prix bi mu ngoog am na kon 8 millions muy juróom-ñetti millions ak pañe boo xam ni ma nga jóge ca ndeyu daara yi jërëjëf Serigne Talla kon ñan ñooñu dese troisième deuxième premier kan moo jël troisième Serigne Serigne Ndiouga ki jël troisième comme ni concours bi seeree ni ma ko waxee am na quatre-vingt-dix-huit points virgule dëkk région bu Louga gën a tuuti ci xale yi takbir takbir mbokk yi maa ngi ñaan xale bi sept ans la am bi muy qualifié juróom-ñaari at maa ngi ñaan jóg leen taxaw ñu màggal alxuraanu karim ku ko def yal na la yàlla tàggaleeg feebar incha allah Alioune Badara Diagne bismillah Alioune Badara allahu akbar allahu akbar allahu akbar macha allah allahu akbar ëpp law law law law law law uy waaw nee na man jigéen ak gone gu tuuti gu xamagul dara laa yemale kon Alioune Badara Diagne ginnaaw li nga am na fukki million dolli ci ñaari million Serigne Moustapha Ndiaye ko jox douze millions takbir oy wallaay ndeysaan acca ak million jox ko bismillah wàllu sunu waa ji moom Serigne Sidi Ahmed si Serigne Sidi Ahmed allahu akbar oy hopp law law law law andu si leen nii tuuti dafa gàtt lool ba duñ ko seen ñëw leen nii tuuti ñëw leen nii tuuti ndeysaan wàcceel prix bi ndax ñu man a gis kanam gi cey yàlla allahu akbar neuf la am mbokk yi juróom-ñeenti amagul fukki bi muy qualifié boobu la mokkool alxuraan qualifié booba sept la am juróom-ñaari at ba Badara Diagne yàlla na ko yàlla sàmm région bu Louga la jóge takbir waaw Sénégal a ngi de Serigne Talla ko jël deuxième madame Thiam Kati ah madame Thiam Kati na jox na nen ne tuuteem si tegal ko ci un million kon xale bi am na treize million <laughs> ah excellence yes nee na dolli na ko un million. hopp law law law tegal na ko ci un million xale baa ngi ci ñaata mbokk yi quatorze millions. oui ah PCA. un million PCA série ah. PCA bu Senico teg na ci un million Modou Fall teg na ci un million ah? ministre Antoine Abdoulaye Diome mu teg na ci deux millions. ministre Félix Antoine Abdoulaye Diome teg na ci deux millions. waaye mbokk yi wàññi leen ma waay. uy uy Serigne Mahmadal Fall. lu mu wax. teg na ci deux millions. ëpp law law law law law law ma buñ taxawal mbaa gone gi du raw premier bi nag. mbaa gi du raw premier bi kon nañ ma ko récapituleel mbokk yi xaar leen tuuti Serigne Talla Serigne Talla ñëwal. dama doom bul jooy de bul jooy tey du bisu jooy doom ñëwal xoolal public bi jàkkaarloog ñoom reetaanal ba mu neex la doom wala yaa ko liggéey Serigne Talla grand prix ko ñaata la ko jox ci xaalis. jox na ko fukki million. 10 million Serigne Moustapha Ndiaye ñaata la ci dolli. 2 millions. muy 12 Serigne boobu ñaata la ci dolli. 2 millions muy ñaata. nañ ko def ndànk benn ko. 10 millions la am ci grand prix Sédico Serigne Moustapha Ndiaye teg na ci 2 muy 12 Serigne. sëñ Den Fall teg ci deux muy quatorze ministre Antoine teg ci deux millions muy seize soxna Kati teg ci un muy dix-sept PCA bu Sénico teg ci un muy dix-huit sëñ Modou Fall booleeg ma jooy teg ci un muy dix-neuf millions ambassadeur u Arabie teg na ci un million xale vingt millions takbir la ilaha illallah hopp law law law law law law law hopp law law law mooy yéen kii bu jëloon premier fu jëm Serigne Talla ay bëggoon nga jëloon premier xanaa kon 40 la jëm waaw Sénégal daal mu nekk fi jigéen ak nekk fi xale jàng alxuraan am na jariñ Serigne Talla ku jël deuxième ñu ngi leen di jéggalu ku jël deuxième ñaari prix ñoo ñu dese ki jël deuxième ki jël premier sëñ Talla ku jël deuxième ndeysaan sëñ Juga acca ah xale ban waa xale bi nag doy na nag yéen itam nag ah ah ilaha illallah uy délégation présidente am na ci un million. nee na docteur Aboubacar Sarr di DGP bu pèlerinage dooleel na ko ci un million xanaa xale bi dem na 21 xale bi dem na 21 te premier prix Sénico ñaata la 20 moo xale bee jël pee xanaa waaye mm, mm, mm, ndànk rek ndànk ndax ki jël pee bu dee jigéen da ko romb de ndax sëñ Moustapha teg na ci lépp ci teg ba pare Serigne Talla ku jël. Serigne Talla ko jël deuxième Sëñ ki nga xam ni moo jël deuxième place bi am na quatre-vingt-dix-neuf point virgule mu ngi dëkk région de Dakar tudd Mouhamad Diallo Mouhamad Diallo takbir wallaay ndeysaan oh, ba tey moom it daa tane kee rek waaye dafa tuute ni moom Mouhamad jàllo ñu gisoo da koo tane rek ndeysaan kan moo koy jox macha allah moo di sunu kilifa Serigne abu Mbakke bu Daaru Salaam sang bi kaay joxel ñu ñaareelu. xabaar ñëwaat beneen xabaar. Hmm. xale bi lu mu amoon. xale bi fi jóge woon troisième. amoon na vingt et un millions. dolliwaan nañ ko un million madame la ministre Awa Diom madame le ministre soxna Awa Mbacké Badaya dolli na ko ci un million kon xale sa tuuti si Alioune Badara Diagne troisième la jël am na vingt deux millions oui bismillah sang bi sunu sang bee nuy joxeel li nga xam ne mooy deuxième prix bi am na quinze millions moom Mouhamed Diallo jële ko ci grand prix bu Sénico quinze millions fukki million ak juróom hopp law law law plus bien makka boo xam ni sëriñ daaraam moo cay dem makka ziyaare seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar jërëjëf jërëjëf sang bi mbàkke jërëjëf yàlla yàlla fay jërëjëf jërëjëf sëriñ taala ñu dem ci dëj dëpp gi li sénégal di xaar adduna bi di ko xaar ki nga xam ni incha allah ci kanam tuuti dana ñibbi këram ak ñaar fukki million yóbbaale billet Makka grâce à Kane grand prix bu Sénégal jërëjëf Serigne Abdoulaye Dia Serigne Talla ko jël premier fu mu ah góor la am jigéen. jël première. góor la jigéen la ah? góor la. ndax ndax yàlla boobu <coughs> Serigne Talla ki jël premier région ba mu dëkk ban lettre la commencé. dee ay <laughs> dee dee def leen ndànk dee am na dakaar am na Diourbel dee bari na de dee bari na ñaata point la am ñaata point la am moom am na quatre-vingt-dix-neuf point virgule trois allah point lañ ko doon laaj mu ba 67 cent point lañ ko laaj mu bàyyi fa 0,23 la fa bàyyi la ca des lépp mu jël ko yóbbu Serigne Talla fa mu dëkk dee la commencé góor la lan moo topp ci dee bi ci français dee bi lu ci topp. lu topp ci dee bi ah. <laughs> oy dee def leen ndànk de Daara Jolof a ngi fi de Daara Jolof a ngi fi de ah amul bokku ci allahu akbar Serigne Talla. ki jël premier ban région la dëkk Serigne Talla. région capitalu Sénégal. Dakar takbir allahu akbar Serigne Talla léegi nag ñaari question ki jël premier nu mu sant nga soog baa ki jël premier nu mu tudd nu mu sant. ki jël premier mi ngi sant Sey. ki mi ngi sant Sey kon nag mi ngi tudd. mi ngi tudd way juru ki ñu ne bis bi muy xaadim say allahu akbar takbir mbokk yi jug leen taxaw ñu màggal alxuraanu karim Serigne Saliou Mbacke waxoon nañ ko ca tàmbali ba moom la ñu tuddee bis bi waaye ñaanal nañ barkeem wàcc ci barke ba wàcc na macha allah ki nga xam ne moom lañ tuddee way juróom Serigne Xaadim Sey moom moo gagné li nga xam ne moom moo di prix bi moom mooy bu kenn dem de ki jël premier mooy jàng xat ma ñu soog a jóg sëriñ xaadim sëy bismillah xaadim sëy xaadim sëy ana xaadim sëy <coughs> mi ngi ñëw ana xaadim sëy mi ngi jàpp mi ngi ñëw mi ngi ñëw macha allah jërë ngeen def toog leen mbokk yi dafa yeesal njàppam ndeysaan allahu akbar xale yi ñu yéemee ngi ci biir xale yi ñu yéemee ngi ci biir bi ñuy annoncé premier prime mi ngi ko fekk mu yeesalaat njàppam allahu akbar kabira macha allah kon su ko defee ñu sàkku ñëpp toog toog leen yëg leen suuf mu jël prime ci loxo yi ki nga xam ni mooy monsieur le gouverneur de la région de Dakar monsieur le gouverneur bismillah ak kàddu yu tedd yi nga xam ni macha allah joxe na ko fi bu xale bi yegsee rek ñu woo ko mu joxe li nga xam moo bëri prime Serigne Talla ki jël premier lu mu am. sëñ Ndiouga ki jël première am na 20 millions waaye sëriñam am na billet Makka allahu akbar ki jël premier di xaadim sëy dëkk fii ci ndakaaru am na ñaar fukki million di 20 millions ak billet makka boo xam ni sëriñ daaram moo ciy ziyaari seyduna ma le champion est là champion est là champion ngi nii champion ngi nii allahu akbar oh oui allahu akbar wala champion ngi nii champion ngi nii de taxawal taxawal taxawal taxawal santal sunu borom xaadim xaadim taxawal xaadim mbokk yi ku am joma ngi ku am joma ngi keroog bi mu jàngee ba pare bi mu wàccee dafa génn saal bi rek ne këpp ci suuf ndax attalawtu ko gis ngeen tey bi ñu annoncé ne mooy premier mënatu la tey boppam xaadim santal suñu borom xaadim taxawal xaadim taxawal xaadim alquranul karim nga mokkal ustaas bul woo ustaas xaadim taxawal xaadim xool ma xaadim xool ma xaadim xool ma xool ma yaa jël premier xaadim yaa jël premier santal yàlla waxal alhamdulilah waxal. alhamdulilah. jeex na su ko defee kon ñu ngi sàkku ci monsieur le gouverneur euh, de la région de Dakar aca jàkkaarloo ak moom Serigne Talla dendal ak moom dendal ak moom nga téye ko waa attanu ko waaye kenn attanu ko kilifa yi toog ci kanam yëpp kenn mënatul téye sa bopp ñoom ñëpp na àndandoo di jooy lu tax teraanga ci waa alxuraan ak ñëpp wallaay sëñ Ismaël doomu sëñ Cheikh Mbacke kenn téyetul sa bopp. jërëjëf Xaadim Sey nañ ko woo oustaz ñëwal jërëjëf oustaz ñëwal jërëjëf nee na oustaz ñëwal xajal leen oustaz bu ñëw oustaz ñëwal oustaz mënta téye boppam oustaz ña ngi koy yanu moom itam mënta téye boppam mi ngi ñëw xaadim oustaz a ngi ñëw xaadim oustaz a ngi ñëw oustaz a ñëw xaadim xaadim xaadim yaa war a jàng xatmu bi xaadim sëy yaa war a jàng xatmu bi allahu akbar cash sëñ taalam teel mu ngoog Mbaye Sarr Sénégal moo ko joxe cash un million moo ko ci tegal kon fi ne am na vingt et un millions ak billet mag waaye day uh. jërëjëf Cheikh Abdallah Dia jërëjëf Grand Prix bu Sénico wane taaru alxuraan ci biir weeru koor fii ci Sénégal waaye booleeg di joxe nag ay millions Serigne Daara ñëwal waaw Serigne Daara bu yaru la moom itam macha allah Serigne Daara ñëwal ñëwal. may leen ko mu taxaw taxawal sëñ daara demal dend ak moom demal dend ak moom xaadim dendal ak moom xaadim dendal moom sëñ daara sëriñ daara dindil mbaxana mi senegal gis la sëriñ daara sigil sëriñ daara sigil xool senegal sëriñ Ibrahima ñu ngi jërëjëf sëriñ Ibrahima ñu ngi sigil xool Sénégal xaadim jàkkaarlu ne public bi su ko defee nag buñ paree nga dem Bachirou Bachirou Silla dooleel na ko ci cinq mille kon am na vingt et cinq cent PCA Ben Walid Ndiaye nee na man jox naa sëñ daara bi un million tegal ko ci la ilaha illallah oy la ilaha illallah merci gouverneur yàlla na yàlla fay la mbokk yi xar yi kon ñu teewlu xatmul quran bi nga xam ni le champion du Sénégal ci jàng alxuraanul karim di xaadim sey dëkk fii ci ndakaaru moo ko gañe ñu bokk ko teewlu na ci ñëpp dugal seeni ajo aajo yal na yàlla faj ajo yi ñëpp waaye yal na yàlla faj aajo yi Sénico ak PDG bi macha allah waaye mbokk yi bu leen fàtte produit Sénico yi xàmmee nañ ko te kat ci sot la bokk ku ko jënd yal na la yàlla taxaw bismillah ñu teewlu xatm bi incha allah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 اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا باريا إلا قطعته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا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 seen Modou bu Dieng may na ko terrain booleel ko ci am na terrain buñ ko may ca Touba booleel ko ci moom sëñ Xaadim euh, waa daayira mu xadimaatul xidma teew na nañu teewaay bu rafet ñoom sëñ Jiili Bousso sëñ Abdoulaat Bousso délégation bi ñu def yëpp gis nañ ko imam Baba Thiam Jolof moom it teew na ak délégation bu am solo force sécurité yi ngeen bàyyi xel bunt yi mbokk yi génn nañu bàyyi xel seeni poos ndax mbooloo mi mën na rax ñu leen di sant di leen gërëm bu baax force de sécurité yi ak waa santé ñu leen di sant bu baax ci taxawaay bi sapeur pompier yi candidat jigéen yi dafa am ku leen may kenn ku nekk takkaayu or takbir allahu akbar jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sañam sa jërë jëf naka sëñ Cheikh mi dégg moom sëñ Saliou naka sëñ Muntaxa dégg mi fi nekkal sëñ Touba kilifa diine yëpp nañ ko dégg sant nañu gërëm nañu ci turu sëñ Ablaye sëñ Abo Mouhamed jërëjëfati ak mboolem waa Daaru Salaam sëñ Daam sëñ Daam dama ko fàtte woon sëñ Mamour dama ne woon rek xalifa xalifa sëñ Abdou Khafour waaye sëñ Mamour Touba tu nii moom it sëñ naa sëñ Moussa Alaaji Baara xalifa bisu liggéey bi rafet na li ngi fi gis ci taaral bés bi yëpp yàgg liggéey sëñ Modou Mahfouz Mbacké moom soxna May moom boo xoolee jëmm ji sax sa xel dem ci grand concours bi sëñ Alaaji Tàkko moom Cheikh Mohamad Fadal jërëjëf sëñ Cheikh Awa Balla Gueye imam jërëjëf sëñ Abdou Khadir Dia waaw xalifa waaw xalifa Ndiaye yëpp waaw organisateurs yi ñi taxawoon liggéey bi yëpp xam leen ni liggéey bi des na nañu summi daraay yeggale liggéey bi organisateur yi bu kenn dem jërë ngeen jëf ñu maygat yi ñu wàcc bunt yi agent de sécurité yi nañ ci taxaw nit ñiy génn nañ téye seeni poste Nous remercions aussi le corps diplomatique qui est venu massivement. Nous remercions les délégations islamiques. waaw بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون Cette TV et AZ Actu vous souhaitent un bon ramadan. Cette TV ak AZ Actu ñu ngi leen di ñaanal weeru koor jàmm Cette TV et AZ Actu vous souhaitent un bon ramadan.